bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alladi bi nicmatihi wa jalaalihi tatimu alsalihat allahuma solli ala sayidina muhammadin tibbi alqulubi wa dawaa'iha ila siraat wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim allahuma solli wa sallim wa baarik ala hada annabiyi alkarim sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna biha iyaahu wa radiya allahu an saaxibi alxatmiyati walkatmiyati mumiddi al awliyaai wal aqtaabi ridwaanullahi anhum ajmain rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaab annaar rabbana laa tuzig quluubana bacda iz hadaytana allahuma salli ala sayidina muhammadin alfaatixi lima uxliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها الإخوة والأخوات ñoo ngi santaat yàlla bu baax moom borom bi tabaraka wa taala di julliwaat ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni euh, moom mooy euh, ki yàlla jox autorisation ngir mu saafara xol yépp di seen euh, médecin ba noppi nekk seen garab en même temps moom sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam euh, moom tamit salallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ni fa tabaarakallahu euh, mooy jàmmi yaram yépp mooy seen saafara waaw mooy mooy moom tamit mooy dund ruu yi bu dund rek yaa ngi dundee ci barke Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. bët yi tamit ak gis-gis yu baax yi yëpp moo ngi leere ci barke Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoo ngi ñaan yàlla mu julli ci moom julli ci képp ku takk ci moom ak lépp lu taq ci moom ak fépp fu taq ci moom yal yàlla julli ci euh, moom julli ci jëmmam ju tedd ji julli ci raw doom bi julli ci njabootam gi julli ci waa këram julli ci ay soppeem julli ci képp ku taq ci moom ak lépp lu taq ci moom sallallahu alayhi wa sallam eh, fa tabarakallahu di yeesal sunu ngërëm sunu ñaan ngërëm jëme ko ci sunu sunu sëriñ eh, cheikhna Ahmed Tijaani radiallahu taala anhu waaye di ko ñaanal laale tamit képp ku taq ci moom ak lépp lu taq ci moom ci ay xulafaawu ak ay njaboot eh, ba keroog yowmal qiyaama di ñaan yàlla yàlla wàcce jàmm ci jullit yépp wàcc ko ci àdduna bi wàcc ko ci mbokk yi wàcc ko ci soppe yi ko ci réew yi ñu nekk yépp bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di yeesal sunu ziar ci mbokki jullit yépp mbokki taalibe yi mbokki soppe yi nga xamante ni macha allah bis bu nekk eh, du waxtu wi jotee rek ñu bàyyi seen yitte yépp bàyyi seen aajo yépp bàyyi seeni seeni jële ko ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jële ko ci sunu sëriñ cheikh na ahmad tijani radiallahu taala anhu waaye jële ko ci mag ñu baax ñi fa tabarakallahu yaakaar naa yéen ñëpp démb euh, dégg ngeen euh, euh, terme yooyu nga xamante ni bis bu nekk dañ koy ci dégg-dégg waaye nag soo soo ko gëstoo wala nga dajeek ku ko comprendre di nga xam ni mooyu simple la ndax yàlla lépp lu mu bëgg nit ñi comprendre ko rek def na ko ci alquran waaye jàngale na ko ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni loo gis ci alquran wala nga gis ko ci sunna rek xamal ni ay junju yàlla la ay junju yonent bi la waaye lu ñu mën a dégg la seulement niveau de dégg yi rek mooy mooy wuute ku nekk ak na nga koy déggee ku nekk ak na nga koy xamee ak ku nekk ak ni nga koy comprendre waaw su ko defee nag kenn ku ci nekk yow da ngay xool rek fa sa doole toll ci dégg-dégg ci xam-xam ci tolluwaay su boobaa nga déggee foofu soo gisee keneen ku am beneen dégg-dégg wala beneen tolluwaay beneen wala beneen yëg-yëg ci beneen niveau ci beneen tolluwaay nga bàyyi kook moom nga bàyyi kook dégg-déggam nga xam ni wa ma minna illa lahu maqamu maalum macha allah soo leen gisee démb borom bi tabaraka wa taala dimbali nañu ba ñu bokk étudier ñun ñëpp li ñuy wax al islaam ñu jàng ko bu baax xam ni juróomi ponk la mooy shahada ak julli ak woor ak génne asaka ak dem màkka ñu jàng iman muy juróom benn ponk muy gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi gëm yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ah, salaam gëm téere bi mooy alquran ak téere yi ah, <laughs> gëmaale tamit yowmal qiyaama gëmaale tamit euh, euh, euh, existence su malaayika yi gëm tamit li ñuy wax dogal mooy bu neex ba ak ak bu naqari ba macha allah nga xamante ni benn bu ci nekk gëm ko dogu ca am ca pas-pas am ca aqida bu wér day nekk farata goo xamante ni dafay nekk ci dox bépp bépp jaam boo xamante ni bëgg nga dund sak njaamu ci borom bi tabaraka wa taala loolu mooy li am waaw su ko defee nag macha allah ñetteelu poñ bi jàngatoon démb mooy li ñuy wax al ihsaan al ihsaan yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko jàngal yee ay ponk la mais lii daanaka concept la waaw concept la boo xamante ni yonent bi moo ñu ko jàngal yonent bi moo ñu wax nañu al ixsaan mooy an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ok ci xadisu jibril bu siiw booba mu ni ixsaan daal yonent bi moom lañ laaj nekk luy ixsaan mu yonent bi ne ixsaan mooy ngay jaamu yàlla comme si dangay gis yàlla soo gisul yàlla nga jàpp ne yàlla moom moo lay gisal boppam kooku mooy ñaari tolluwaay yi bii mooy muraqabatu bii mooy mushahadatu nga xamante ni yow soo ko gisee soo soo ko mënee gis fa lillahi alhamdu soo ko mënta gis fa lillahi alhamdu démb nag ñu waxoon leen tamit ne leen yii ñu tudd yëpp di ay concept benn bu ci nekk dafa am école bu koy jàngale ñu wax leen ne leen islaam li koy jàngale ki koy jàngale école bi koy jàngale mooy al fiqh fiqh nag dafa séddaliku ci ñaari fiqh am na lu ñuy wax fiqhul ibadat mooy fiqh bi jàngale nu ñuy jàppee nu ñuy sangoo nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy génnee azaka dégg nga ak euh, lépp lu bokk ci jaamu yàlla loolu la ñuy wax fiqhul ibadat waaw fiqhul ibadat mooy boobu ok léegi am na beneen fiq bu ñuy wax nag fiqhul muamalat fiqhul muamalat mooy lépp loo xamante ni contrat la ak relation la muy contrat ci diggante ñaari nit ak contrat ci diggante mboolo ak mbooloo famille ak famille li ñuy wax euh, héritage li ñuy wax euh, Euh, euh, euh, jaayante jëndante dégg nga diplomatie échange internationaux échange commerciaux dégg nga dégg nga yooyu yëpp benn boo ci dégg rek xamal ni fiqhu bi koy toppatoo moom la ñuy wax fiqhul muamalat ñaari fiqhu yooyu moo am ma ngoog léegi léegi soo demee ci al iimaan iman moom école bi koy jàngale moom la ñuy wax aw école tawxid école tawxid tamit dafa am ay branche am na lu ñuy wax tawxid al al tawxidu tawxidu al uluhiya ak tawxidu al rububiya ak tawxidu al asma wa sifaat nga xamante ni ñetti tawxid yi doo ko maîtriser xam ko ci yàlla subhanahu wa taala xam li aju ci moom moom yàlla en tant que yàlla ci jëmmam ji moom yàlla subhanahu wa taala ak tawxid bi am ci moom yàlla en tant que euh, yàlla miy def di dindi di di joxe di xañe ah nga xamante ni moo lay ubbil buntu asma wa sifaat mooy turam ak melo yi melo mi kooku soo ko soo ko maîtriser da ngay dugg ci dëgg-dëgg tawxiid waaw kay mu des troisième euh, troisième partie bi nag nga xamante ni fa tabarakallahu moom it euh, partie bu ama ama am solo la mooy euh, li ñuy wax al ihsaan ihsaan nag école bi koy jàngale école boobu moom la ñuy wax at tasawuf at tasawuf wala at tazkiya wala ak tarbiya waaw te man sax souvent damay wax mbokk yi ne leen euh, souvent je préfère ñu utiliser euh, le terme euh, le terme ñu utiliser le terme tazkiya parce que tazkiya li ci ëpp suñ ko suñ ko utiliser rek jàmm jàmm jàmm daal di ñooy jàmm daal di ne ñooy waaw ndax bu dee tasawuf gars yi mën nañ la wax ne waay tasawuf kat Euh, euh, mën naa am waaye kenn dégg ko ci biir alquran te bien que loolu xam nga waxu ku daanu ci saret la ndax bari na lu lu nekkul ci alquran te doo demee ci sunna fekk ko fa ah, bari na loo loo dul fekk ci sunna te doo demee ci xiyaas euh, wala ijma wala ci borom xam-xam yi nga fekk ko ca mu taxaw te lépp day wér péng ndax ñoom ñëpp li ñu yor ci ay xam-xam ak ay dégg-dégg ñoo ngi ko jëlee ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam-xam yooyu ma doon junj naan allazina yastambituunahu minhu mooy isharaat boobu ma def ay mooy isharaat yooyu ma doon def jëmale ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam par rapport ak euh, macha allah euh, li nga xamante ni moom mooy tasawuf ñi koy wax tazkiya ñi koy wax tarbiya wala ilmu tazkiya yooyu yëpp dina ilmu tasawuf ilmu tarbiya yooyu yëpp dinañ ko wax waaye li muy signifié daal en en réalité en en en en en en réalité li muy signifié moom mooy la purification de lam la purification du nafs ah mooy nga nga fexe euh, désengorger sa sa nafsu sa sa sa sa sa bakken nga dindi ko tàggalee euh, fóot ko ba mu set wicc wicc ci lépp loo xamante ni ay gàkk-gàkk la ak ay ak ay ay ay ay blocage yoo xamante ni dina tax moom bakken bi du mën a àgg ci yàlla subhanahu wa du mën a jokkook boromam tabaraka wa xam-xam yi mu amoon démb euh, du ko du ko du ko du ko du ko mën a fàttaliku ba nga xamante ni macha allah benn bu ci nekk ci xam-xam yooyu day nekk xam-xam boo xamante ni day dellusiwaat ci moom euh, euh, bakken bi dellusiwaat ci borom bakken bi yàlla daal di koy branché delloo ko ay xam-xamam ak ay yëg-yëgam ak ay tolluwaayam ba lépp leer ci moom la lëndëmoon ci moom leer la diisoon ci moom woyof la dëgëroon ci moom daal di mujj nooy nepp nepp nepp nepp ba nga xamante ni fu mu toll day mën di teewlu yàlla eh, dëggi-dëggi teewlu yàlla mën a jublu ci yàlla mën a jaamu yàlla mën a wéetal yàlla mën a bëgg yàlla mën di am ay xam-xam yu jóge ci yàlla subhanahu wa taala directement te dootul jaar fenn kooku mooy dëggi-dëggi eh, tolluwaay bi léegi nag loolu moo taxoon démb ma ne leen eh, bu dee islaam yaakaar naa ni loolu leer na naññ ñëpp xam nañ ko bu dee imaan ñëpp xam nañ ko waaye problème bi gaa yi li ñu xaw a réeree ña euh, euh, euh, comprendre luñ ko am ci ay problème de compréhension am ci ay problème de dégg-dégg am ci ay ay ay rumeur dégg nga am ci ay ay ay ay ay ay fausse li ñuy wax fausse information ay fake news ay désinformation ah bi ci bi ci gën a graaw nga xamante ni moom lañ ci gën a yàpp moom la ñuy wax moom la ñuy wax tasawuf wala ñu koy wax tëzkiya waaw yooyu mooy xam-xam yi gën a raar nga xamante ni moom la nit ñi gën a réere te du dara parce que xam-xam boobu dafa laaj benn taxawaay bi benn pas-pas bi benn dogu bi benn engagement bi dafa laaj tamit loolu ñuy wax sincérité sincérité bu dëgër la xam-xam boobu laaj du amul rek borom ba ki bëgg ki sàkku li muy sàkku du am li muy wut mukk mukk mukk ci digganteem ak boromam loolu il faut que euh, gars yi xam ko waaw il faut que ñu xam ko bu baax ndax ñàkk koo xam moo ñuy indil problème yi ñu am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah léegi nag loolu moo tax euh, ñu bëggoon ndax fi ne nii waxtaanu wu ci nekk mooy indi moroomu waxtaanam macha allah waxtaanu démb bi ñu def ci école yi jàngalee euh, ñetti branche yu l'islam yooyu moo ñu ubbil nag buntu ci ñu gëstu ci troisième école bi nga xamante ni c'est l'école la moins connue C'est l'école la moins connue, c'est l'école la plus combattue, c'est l'école la moins comprise moo tax ñu indi ko nag teg ko ci euh, mbedd mi teg ko ci euh, réseaux sociaux yi teg ko ci àdduna bi pour ñëpp teg ci seen bët mais ñu xool suñ ko exposé ba noppi teg principe yi ba mu leer naññ wane ban liggéey la ñuy def ci nit ñi ak ban rôle lay joué léegi nag kenn ku ci nekk soo amee information yi léegi nag mën ngaa juger sa bopp waaw mën ngaa juger sa bopp comme ni ma ko waxee toujours euh, man euh, samay wax je cherche pas à convaincre déedéet je cherche pas à avoir raison taxumaa jóg intéressé wu ma man li ma intéressé mooy yow mi nga xamante ni observateur nga yow mi nga xamante ni gëstukat nga yow mi nga xamante ni sa diine daf la intéressé l'islam dans sa globalité loolu dama bëgg koy bàyyi xel bu baax l'islam dans sa globalité daf la intéressé yow l'islam dans sa globalité daf la intéressé dégg euh, euh, euh, nga ma jox la ay éléments de de comparaison ay éléments de recherche yoo xamante ni soo ko téyee doo ma déglu déglu keneen déglu keneen yow soo amee discernement ah ak esprit de esprit critique am am am am am capacité de raisonnement bu dëgër gis nga da ngay mujj yow ci sa bopp ah nga nga mën a def nag la part des choses ba nga xamante ni dootoo nekk euh, mouton kenn kenn doot la embrigadé dootoo toog fii kenn tënk la napp la ci ay ay discours ak ay discours yu tàng di la wax naan lii daa xaraamak ak lii daa dagan ak di la sonal ak bokkaale yàlla di la sonal ak yooyu yëpp ba nga mujj réer ba nga mujj réer te loolu dinañ ko leeral ba mu leer naa ñi gis nga gars yi seen yu bëri yi ñuy def ay discours di ci wax di ci def ay xutba loolu du du wax ji loolu du coow li mooy nga sincère sa digganteek sa borom coow li mooy nga sincère sa digganteek sa borom te sincérité sa digganteek sa borom mënoo ko def euh, tant sa bakkan bii mooy sa sa nafsu sa sa bii sa sa moom mooy mooy sa borom mooy sa kilifa soo diggee aarifina billahi nitu yàlla yi gis nga ay yii di toog di sonal nit ñi ku def li bokkaale nga yàlla ku bokkaale yàlla safara nga jëm euh, waaw kay Euh, ku dem ci euh, ziyaare ab euh, ku ñu denc bokkaale nga yàlla waaw ku bokkale yàlla safara nga jëm xabru yonent bi sax ku fa dem taxaw di ñaan bokkaale nga waaw ku ku bokkaale safara nga jëm kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi naar ñoom xamuñu xamuñu sax lan mooy shirk xamuñu luy shirk yow ni ngay shirk ak ni gaay yàlla yi góor yàlla yi aarifina billahi déggee shirk bokkul de am na shirk boo xamante ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dajji na ko ci kaw suuf ba mu dañ dindi na ko il a purifié la Kaaba de toutes ses idoles il a purifié les cœurs de toutes les idoles tàggalee leen ak surtout li ñuy wax bakken yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko nee na sama xeet wi ragaluma ci ñoom ñu bàyyi julli ragal lu bëri yonent bi moo ko tudd nee na yooyu yëpp ragaluma ko ci ñoom ñu ne ko waaw loo ragal ci sa xeet wi ëllëg mu ne damaa ragal ñu topp bakken waaw yonent bi wax na ci beneen xadis ah amul ah, ah, ah, nit jaamuwul yàlla bu bu bu bu ëpp bakken ci kaw suuf saa à dire que nit ki dëggi dëggi bokkaale yàlla dëggi dëggi bokkaale yàlla bii gaa yi di tudd te ñoom xamuñu ko mooy ngay topp sa bakken parce que bokkaale yàlla mooy lan bokkaale yàlla mooy lan yàlla mooy lan mooy nga wutal yàlla ndend kii ne bind na nga ne eh, kii ne moom mooy alxaaliqu nga ne diw mooy xaaliqu su julli jotee ñëpp di sujjootal yàlla yow nga nga gis keneen di sujjootal keneen ku dul yàlla rey jot nga gis eh, di reyal yàlla yow nga kii di rey reyal keneen ku dul yàlla mooy jaamu daal bi maanaa jaamu jaamu keneen ku dul yàlla sëñ bi nit ñi mën nañu juum ci seeni pas-pas ak seeni yenn erreur yi mais jaamu ku dul yàlla ci biir ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñuy wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa ku xam lan mooy la ilaha illa allah ah bu ko bu ko jugé bu ko bàyyi ko ak laa ilaha illa su ëllëgee yàlla atte leen moo gën a wóor gis nga gis nga gis nga bokkaale yàlla pire bokkaale yàlla pire dëgg dëgg bokkaale yàlla mooy nga wutal yàlla ndend wutal yàlla ndend du yii ñuy tudd ay dem ci raw doog dem ziyaari fi ak dem dugg fi ak dem déedéet bokkaale yàlla wutal yàlla ndend mooy sa bakken bii digal la yàlla digal la nga topp sa bakken kon yow moment boobu noonu nga war a dem tëddi nelaw wala nga war a dem naafila ji wala nga war a dem jàng alquran dem soirée topp nga sa bakken kon yow weddi nga ni yàlla mooy sa buur kuy sa buur bànneex moment boobu ci moment boobu loolu mooy bokkaale yàlla il faut que loolu nit ñi xam ko moo tax comme ñoom nag dañoo faible ci côté bakken fu ñu toll loolu duñ ci dugg dan naan ku takk téere ku dugg fi ak ku ziyaari wala ku ku ku ku yooyu la ñuy wax di sonal nit ñi te loolu loolu yomb naa lijjanti loolu yomb naa lijjanti li jafee lijjanti mooy li sax ci sa xol di la tàggaleeg sa borom yaa ayyuha al insaanu maa garraka bi rabbika al karim alladi xalaqaka ba aaya ba jeex loolu mooy dëggi-dëggi bokkaale yàlla mbokk yi loolu mooy dëggi-dëggi bokkaale yàlla mbokk yi kon nañu def attention bu baax a baax a baax ci termes yi ñu utiliser ak kàddu yi ñuy génne ci suñu gémmiñ te léeg du ñu xam dëggi-dëggi lan mooy maanaaya képp ku xamante ni topp nga jigéen bàyyi yàlla yow jigéen mooy sa yàlla képp ku topp alal bàyyi yàlla yow alal mooy sa yàlla lu yow yaay bokkaale yàlla képp ku topp ab match bàyyi yàlla yow yi match boobu mooy sa yàlla kon bokkaale nga yàlla képp ku topp ab nit bàyyi yàlla comme nit kooku mooy sa yàlla kon bàyyi bokkaale nga yàlla képp koo xamante ni topp nga taar wala nga topp musique wala nga topp ab fokat wala caaxaankat wala taxawaalukat nga topp ko di wut bànneexam di ko seet di ko lijjanti ba mu soxla woo la ba mu soxla woo la nga fàtte yàlla fàtte jaamu yàlla faat waxtu yàlla faat kooru yàlla bañ a topp yàlla bañ a nangul yàlla yow kooku mooy sa yàlla lool mooy dëggi-dëggi bokkaale yàlla yaa ayuha alladina amanu laa tulhikumu amwalukum wala awlaadukum an zikrillah wa man yafaal zalika fa ulaika humul xaasirun aaya bi alaaji Muhammad Ndieguene radiallahu taala anhu fu mu toll da ko daan fàtte jaam jaamu yàlla yi ne nit ñi bu mu leen yitteel leen yitteel bu mu leen yitteel seen doom yi ak seen alal ba gen fàtte yàlla subhaanahu wa taala waaw kay mooy alheekumu zurtumul xatta zurtumul maqaabira waaw kay gis nga lépp loo xamante ni du taxawe yàlla taxaw nga bàyyi loolu nga bàyyi yàlla jàpp loolu loolu mooy bokkaale yàlla te loolu li def mooy bakken nafsu bakken nag su ma koy wax maa ngi junj nii di da jàpp sam bakken ak yooyu déedéet du bakken bakken mooy les cinq sens le toucher l'odorat la vue l'ouïe hein et le goût mooy lépp luy bànneex ci yow yëg-yëg lu nooy lu niin lu saf lu neex lu xamante ni bakken daf ko bëgg lu mel ni musique lu mel ni ay soirée lu mel ni toog ak jigéen ñu rafet mu toog ak ay caaxaankat dégg nga toog ak toog ak ñuy ñuy taaxuraan ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy wax waxi doyadi ah, di seetaan ay eh, eh, ay ay ay ñàkk fayda ay film yoo xamante ni doo ko seetaanee il faut nga dem yeesalaat sa njàpp sa njàpp day toj parce que yaa ngi gis ay awra minute bu jot ñoo ngay doyadi di su futteeku nekk ci plage yi di di def lu kenn xamul mais loolu mooy loolu mooy loolu mooy dëggi dëggi dëggi noonu doomu aadama loolu mooy Ah, noonu doomu aadama imaamul busayri radiallahu anhu nee na wa xaalifi nafsa wa cheytaana wasihima wa waasihima wa inhuma maxad daaka nusxa wattahimi mhm. imaamul busayri nee na yow daal gis nga eh, doo bëggee mucc am ngërëmal yàlla ci kaw suuf soo dee sa biir bàmmeel nga noppalu su ëllëgee nga bokk ci ñi yàlla gërëm imaamul busayri nee na heure bu ak situation taxawee yàlla digal la yonent bi digal la sallallahu alayhi wa sallam sa bakken digal la nee na wàcc fa la sa bakken la sa bakken digal nga dem def li la yàlla wax c'est une bataille man dama koy wax mbokk yi man leen bu leen jàppee àdduna ay dizaine d'années ay euh, fanweereelu année ay ay ay at yu gudd non non non déedéet man àdduna ni ma ko jàppee dama ne àdduna bi àdduna par bés la bés bu nekk Tu as un combat avec le shaitan. Tu as un combat avec ton nafs. Tu as un combat hein, avec tes passions. Tu as un combat avec les péchés. fexeel ba gagné ko fexeel ba gagné ko yow da ngay dem ba sa combat bi dootul nekk sax combat wu dégg nga dootul nekk combat wu bu quotidien mais day dem ba mujj nekk combat boo xamante ni c'est un combat perpétuel mooy di nga dem ba say noyyi dañ koy calculer noyyi boo noyyi nga sant yàlla xam ni beneen bi mën na fee bañ a fekk moromam xam nga lii ku ciy dund doo def bàkkaar doo fàttaliku doo heure boo toogee di fàttaliku yàlla di dund yàlla ci minute bu jot ci seconde bu jot ba mën a fàtte yàlla di dund yàlla situation bu taxaw nga nga fàttaliku yàlla nga xalaat yàlla nga nga nga xalaat bàmmeel nga xalaat ëllëg soo waree wéet sa biir bàmmeel kenn du la fa wéttali nga xalaat ëllëg soo waree dajeeg yàlla ci kanamu jaam yëpp say doom toog say soxna toog say mbokk toog say maam toog monde bi yëpp taxaw ñu war a jël say téere exposé ko adduna bi yëpp war koo gisandoo ci benn seconde ñëpp di ko xool yooyu dooko ko xalaatee mais da ngay mujj xam ni du adduna du dara da ngay mujj dellu ginnaaw doo naroon def bàkkaar nga bàyyi ko soo naroon dem ab soirée nga bàyyi ko soo naroon dem ci benn lamb wala ay caaxaan wala ay doyadi nga bàyyi ko soo naree jox jox loxo jigéen koo xamante ne waroo ko jox nga bàyyi ko ahla min al asari imam ahmad baro njegéen nee nañu nee nañu daal euh, muñ muñ muñ muñ waaw kay waaye mu ne mu ne mu ne garab la goo xamante ni reen ya daa wex xat reen ya daa xat waaye mu ne mu ne doom yaaka saf suukar doom yaaka saf suukar nee na mbaan la boo xamante jël kaani wiis ca kaw doo dajeke muñ noonu la waaw kay mbokk yi ñun ñëpp ñu gën a taxaw waaw nañ gën a góorgóorlu euh, mën naa waaw mën naa seede yombul de waaw waaw c'est du du du waaw ñoo toll foofu euh, benn situation boo xamee voilà ku yàlla yàlla jàppale ñu yàlla yéwénal suñuy mbir zahir ak baatin guddeeg bëccëg àdduna ak àlaxira nañ góorgóorlu rek ñun ñëpp nañ góorgóorlu nañ jàppalante nañu nañu nañu dënkante muñ nañu dénkante góorgóor góorgóorlu waaw nan def ndànk nañu bañ a yàkkamti waaw moom laa leen doon wax toujours barki démb rek am na mbokk mu baax di ma woo téléphone di ma laaj conseil ma ne ko conseil bi ma la jox daal mooy xamal ni lu mu mënti doon ci àdduna bu dee bàkkaar la tu prends une minute pour la faire et toute ta vie pour l'oublier et le regretter waaw waaw loolu Hajmar bindal loolu Hajmar bindal loolu tu prends une minute pour la faire et toute ta vie pour l'oublier waaw du dara du dara du dara du laa la wax bu dee ab kaas booy naan la wala bu dee ab loxo booy teg wala bu dee ab euh, rapport la bu mënti doon dama ne la bànneex bi matul trente minutes matul trente secondes matul sax une minute matul une minute et tu vas regret tu vas kon nag yow yaa war a yeewu daal di def ndànk muñ lii du dara du dara bu dee soxna yi la du dara dañuy mujjal lax ñoom ñëpp màgget ñu jël leen def ci biir suuf si kooku war naa tax nga dëddu yàlla bu dee xale yu góor yi dañ ko jar ñoom ñëpp dañuy mujj ñaaw ñàkk xorom ab yat la ñuy mujj yor di sëgg ñooñu kooku war naa tax nga dëddu yàlla bu dee alalu àdduna day dara day dara ndaw saa ngi nii euh, Liliane Bettencourt France gi moo ëpp alal ci jigéenu àdduna bi yëpp jigéenu àdduna bi monde bi yëpp moo ci ëpp alal dee jeex na alal ji fi ni doom yi ñoo koy xëccoo ak njabootam gi jeex na soo ko gisee mënu woon xam sax ne multimilliardaire la wallahi jigéenu àdduna bi yëpp moo ci apoon alal deena yooyu loolu du dara alal tur daraja bànneex taar euh, euh, popularité nekk star yii day tus c'est éphémère c'est éphémère bu mu tax nga dëddu yàlla sëñ daara jaru ko bu mu ko jar jaru ko lépp loo gis mu rafet <laughs> pome normal tax nga dëddu yàlla bis dina jot mu ras wàcc doye di ba dootul jar ñaar hmm, loolu doo ko xamee jeex na foo toll rek da ngay fuglu yàlla di xaar li dagan xam nga sax bu nekkoon yow mbir yi bu nekkoon mbir yi dañ lay wax ne doo ci am mën nga cee topp mën nga ne ah waaw kay naa profité wala nangam mais yow nee naan la mën nga takk soxna ba ñeent mën nga am jëkkër doo ko amee lu la neex defal budul loolu tamit ñoo ngi la dig aljanna ak la fa nekk ci ay xéewal la nekk ci teraanga ah? mais sëñ bi loolu il faut ñu bàyyi ko xel il faut ñu bàyyi ko xel moo tax muñ ñetti muñ moo am ñetti muñ bala maa ñëw ci thème bi waaw ñetti muñ moo am muñ bàyyi bàkkaar da gis occasion bu leer bu dëgër tu es tu toutes les cartes euh, en euh, entre tes bu jigéen bi nangu na nga gis lépp situation yëpp réglé nga wéet kenn fekku la fa fekkoo fa kenn nga daal di ne ah inni axaafullah ragal naa yàlla kenn gisuma kenn seenuma maa ngi fii wéet waaye yàlla may gis suma kenn gisul tamit maa ngi gis sama bopp nga bàyyi gis alal joo war a jël bàyyi ko fa gis koo xamante ni soo ko xoolee am ci moom bànneex te takkoo ko du sa soxna nga sëgg say bët ngir jëmm yàlla yonent wax na ko sallallahu alayhi képp ku def loolu gis koo xamante ni wóor la li fu mu romb xale yu góor yëpp xool ko yow nga sëgg say bët ngir jëmm yàlla yàlla du ëllëgee yowmal xiyaam dina la suturaal te yàlla dina la jéggal say bàkkaar fii ci àdduna soo ëllëgee yowmal xiyaam yàlla suturaal la te loolu dafay bokkul ci liy gën a gaaw yëkkati ma martaba nit ak maqaamaam waaw gis lu rafet gis koo xamante ni ku ko gis xool ko yow nga dal ci xam ni kii waroo koo xool daganu la ay cëram moomoo ko du doo jëkkëram am na jëkkëram wala kenn takk gu ko xaram na la nga sëgg say bët ngir jëm yàlla sëgg sa loxo ngir jëmm yàlla ba doo ko jox sëgg sa loxo ba doo ko teg sëgg sa loxo ba doo waxanteeg moom waxi doye di wax ñàkk fayda surtout àdduna bi fi mu toll léegi koy waxal wax ñàkk fayda sax moo ngi lay enregistré soo paree mu ñu lay ñu lay ñu lay teg ñu lay kii ñu ñu lay teg chantage naan la jox ma nangam wala ma publier ko ci Facebook wala ma publier ko ci internet donc il faut faire attention il faire attention même bu dara sa dignité sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa say say njaboot ëllëg da ngaa war a am ay njaboot war nekk kilifa xamo looy doon donc il faut préserver ta dignité ngir ëllëg c'est très important muñ bàkkaar bàkkaar des koy muñ sëñ daara bàkkaar dañ koy muñ waaw ñëpp ci bokku yam ñëpp ci bokk yam suñ ci yamul woon gaa yëpp duñu amee soxna sëriñ si dañuy amee soxna <laughs> xam nga <laughs> dañuy am soxna parce que ay nit lañu président yi dañuy am soxna yonent yi alayhimu salaam dañuy am soxna attention attention loolu yëfi nit la ñëpp ci bokku yam waaye nag yow da ngay am ngor gor gu nekk gor gore ñaar yëpp te ngor nag bi ci ah, gën a am solo mooy nga am ko sa digganteeg sa borom dafa am solo waaw waaw jihaadu nafsi mooy dëggi dëggi jihaad Seydi Tall albarka Seydi Tall jërëjëf soxna ami Bachiru Muntaka Taha Taha Cheikh Umarul Fouti radiyallahu taala anhu leeral ci li ngeen jotaay bi heure boo leen ñëwee rek yépp leer lépp rafet lépp baax waaw te yàlla seede na ni tey jii li ñuy jàngale yépp ñoo ngi koy jëlee ci sa njàngale maam Cheikh Umarul fuuti lépp moo ñu ko jàngal lépp lépp lépp lépp lépp lépp démb dégg ngeen li wax ci li mu wax wa tahiri nufusa gis nga nafs boobu loolu moo tax ndax démb bi ñu waxtaanee ba pare laa jot euh, ab mbokk mu baax ndeysaan euh, mu mu wax ma ne ma du ma sañoon daal nga gën a appesantiru ci euh, jihaadu nafs boobu tathiru nafsi boobu laabal biir boobu laabal bakken boobu te dégg nañ la nga wax ko lu mat ñeenti yoon ne Cheikh Omar na am na juróom-ñaari feebar yoo xamante ne xol bu mu nekk borom xol ba du àgg ci yàlla ñu bëgg nga waxtaanal ñu ci juróom-ñaari feebar yooyu juróom-ñaari feebar yooyu laa war a waxtaane léegi incha allahu taala waaye dama nekkoon rek ci soññ mbokk ta mbokk mbokk taalibe yi ci ñu góorgóorlu ci muñ muñ nañ muñ nañ muñ mooy du dara du dara billaahi doo amee soxna di nga xam ni du dara billaahi doo amee jabar di nga xam ni du dara doo amee jëkkër di nga xam ni du dara karkaas bi la nii rek ak coow li rek ak kump gi mais du dara et puis sax am na yoo xamante ni loo xamante ni yow xaj yi sax dañ koy def bëy fas yeeg mbaam yi kooku bu dee bu dee bu dee euh, euh, euh, bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee yow loolu moo la moo la tàggaleeg yàlla yow loo doon loo doon yow lii lay yi ak xaj ak mbaam yi ak bëy yi mooy sa xel sa xel xel nag bi ci gën a am solo mooy aqlu rabbaani xel moo xamante ni dafa connecté wu ci yàlla fu mu toll rek moo ngi digal boroomam pour mu bañ a moy bañ a topp bànneex bañ caaxaan bañ a foog bañ a doyadi c'est important c'est important yooyu yëpp dinaa ci ñëw incha allah bi ci des mooy ngay mu di jaamu yàlla xam ngeen ni par exemple dama leen jox exemple bu précis ñun fi mu ne nii fajar gi daanaka sept heures la fii fajar sept sedd bii ni mu méttee <laughs> sedd bu méttee fii nekk te léeg day sedd boolek taw su la yàlla dimbaliwul billahi fajar doo jóg c'est automatique loolu c'est automatique léeg-léeg nga nekk ci ay liggéey yoo xamante ni du la yàlla dimbaliwul doo jóg julli gii ñi nekk moom ku ci julliwul yaa am problème mais par exemple ñi nekk Europe mais c'est difficile da gis koo xamante ni liggéey bu metti lay am liggéey bu metti nekkak ay patron ak ay kilifa yu yu yu doy yu tàng xol yu yu bañ diine léeg-léeg day am parce que il faut toujours se mettre à la place de l'autre bul toog rek di wax ne diw nangam diw nangam di critiquer déedéet yow nekk koo ci situation te même budul loolu yow mi koy wax ne ko li sa liggéey nangam sa liggéey nangam pare woo pour jox ko sa salaire déedéet da ngay gis ñoo xamante ni il travaille difficilement liggéey bu métti la ñuy am ba noppi ba la ñuy wàcc 19 heures jot bala ñu yegg seen kër parce que léeg-léeg nga gis ñoo xamante dañuy dox daw lu mat ñaari waxtu soog a dem fañ dëkk seen kër am na ñuy jugee Marseille di ñëw Paris di liggéey si ñuy jóge Paris di liggéeyee Marseille dafay am mais kooku su ko yàlla dimbaliwul su amul pas-pas billaahi du ñëwee duy sangu fa mu toog fa lay nelaw ba heure liggéey jotam mu daal di xëyaat dem moo tax jaamu yàlla tamit muñ di jaamu yàlla lu ama am solo la wallahi waaw mooy ngay def yitte waaw di góorgóorlu di def say réveil di bàyyi xel di di xam waaw surtout doo nekkee sa kër yow nga xamante ni kenn contrôlé wu la tu es libre dans ton immeuble tu es libre dans ta dans ton appartement personne ne te ne te contrôle yaa ngi dëkk ay yéefar ñoo xamante ni xamuñu sax luy julli yow dong doo dooy jug ci waxtu woowu di julli daanaka doo dégg mbindeef muy jóg ndax waxtu woowu ñëpp ngi nelaw ñoo ngi ci yeneen affaire moment boobu nag ci la yàlla di xamee ay gaayam parce que gis nga moment boobu nag wallahi man bis bi ma nekkee fii ñi wax Villeneuve Saint-Georges benn suba euh, teel ma xëy di war a dem lijjanti ay kayit <laughs> keroog dama tiit ma ne laa ilaha illallah ñun de ku ci jugul julli fajar ah sa sincérité des na ku ci jaamuwul yàlla sa parce que bi ma génnee li ma gis ci doomu aadama ci mbedd mi ak ci train yi ak ci bus ñëpp di jóg ku nekk di wuti loo am ma ne ah, ñii li ñu bëgg ñoom ñoo nga ca ñun kañ ñoo nekkul ci lu ñu bëgg loolu dama koy wax toujours fii tubaab bi ñoom àdduna lañ bëgg lijjanti nañ ko wut nañ euh, avion yu baax wut nañ train yu baax wut nañ ay RER yu baax wut nañu ay euh, bus yu baax wut nañ ay tram yu baax wut nañ lépp luy yombal seen dund lépp luy yombal seen adduna wut nañ ko ba dajale ko teg ko fii soo ñëwee Europe di nga xam li ma la wax même potu tomate yi yow da ngay jël paaka di ko ubbeeg paakaak di dag dagg sa loxo am na yuñ cay def mbuus yi ñuy def lekk yi sax am na yuñ koy fermeture ma ne la lépp luy yombal seen life rek lijjanti nañ ko wut ay docteurs yu baax ay hôpitaux yu baax pour faju ñun ñoo bëgg adduna bëggaale àllaaxira waaye liggéey lu ñu àllaaxira nañ waxante dëgg parce que ku bëgg àllaaxira du àllaaxira wootee da ngay jóg àllaaxira nag mooy jaamu yàlla nangu yàlla wéetal yàlla topp yàlla lu yàlla digle nga def ko lu man dama koy wax gars yi fii ñi fi soog a ñëw di mbokk ay mbokki taalibe yor wér du salaatul fatixi suñ ñëwee fii ziar si ma seet ma di laaj conseil di ma leen na ngeen intégré na ngeen intégré wérd wasifa zikkar jàng alquran jaamu yàlla ci seen programme dund fii man leen parce que ñetti weeru njëkk yi juróom benn weeru njëkk yi at mu njëkk mi soo sàgganee naan aw ma jot nangam nangam am nangam da xëy <coughs> Eh, ñaari wasifa nga doon def benn ngay mujj def sa lazim bi nga xëy bàyyi ko bu subaa nga defaat ko bu subaa nga bàyyi ko bu subaa nga defaat ko da xëy da am na ci ñu bëri man xam naa ci ñu bëri dañuy mujj daanaka dootuñ wérd julli gi dañuy dañuy jël di boole di def grossiste di grossiste di grossiste ba càgg ñu commencé di bàyyi par benn ah waxtu wi daal mënatuma ko def parce que nanga man sax dama rus sama boru julli dafa bari commencé di wut ay lay ba da bàyyi julli noonu la ñuy xëyee ndox mu sedd mi ak njàpp meek ndox mu tàng meek njàpp meek yooyu dañuy dem ba mujj gi daal di koy bàyyi c'est très dangereux te kat li gën a keroog am na mbokk mu fi ñëw loolu laa ko wax ma ne ko gis nga ñi eh, eh, parce que dafa ma wax ne ma ah man de léeg-léeg yi nee nañ man xaw ma lan ak di wax daal ma ne ko sëñ daara mu ne ma ne ko ma ne ko ma ne ko nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg am na ñu bëri fii ñoo ngi jàmbat waxtu julli ak wérdi yi ak wasifa yi ak zikkar ak jàng alxuraan yi pourtant léeg-léeg ñoom ñooñu di la di la wax loolu naan amuñu jot fii da ngay dafa am dafa bloqué fii dafa nangam ñoom ñooñu dañuy toog pendant quatre heures de temps nekk ci PlayStation wallahi wala ci Candy wala ñu nekk ci Facebook bii wala YouTube bii wala WhatsApp bii wala internet bi di wër nekk seen téléphone ci la ñuy nekk pendant quatre heures de temps quatre heures yoo xamante ni benn heure bi rek wérte nga ci wasifa ci julli ci say waxtu donc loolu yëpp c'est des c'est des pièges il faut que ñu muñ di jaamu yàlla parce que jaamu yàlla danga koy intégrer ci sa dundu ba mu nekk ci sa dund ba nga tàmbal ko sa dundu ba mën ko gisoo tubaab bi am li leen gën a yéem tubaab bi fii tubaab bi li leen gën a yéem maa ngi leen koy wax tey mooy woor woor ñoom julleeg yooyu yëpp nee nañ ah no loolu c'est possible c'est de la gymnastique et tout mais ñoom liñ mënta concevoir mooy nan nga mën a xëyee suba ba ngoon te doo lekk ñu ne déedéet garaaw lekk sax garaawul ñu ne nan nga mën a xëyee suba ba ngoon doo naan café ñu ne déedéet loolu sax garaawul nan nga mën a xëy suba ba ngoon tëddoo tox am ñu ci gën a garaaw daal ni déedéet yooyu sax garaawul mais di yow ki ngay ki tax ngay lekk ngay bañ a lekk di bañ a naan sa frigo bi fees dell ak ay yu yu baax yu nooy yu neex yu niin ah kooku mooy kan yow gisoo ko yow gisoo ko ba noppi di di bañ a lekk ngir moom c'est des question d'ordre satanique c'est le shaitan il faut faire très attention contre ses pensées et ses réflexions d'ordre satanique il faut faire très attention di góorgóorlu di jaamu yàlla intégrer ko ci sa dund waaw man dama koy mbokk yi ku fi ñëw ci étudiant yi di def sa entretien wala ngay soog a am liggéey dama lay wax ne la soo demee bu dee yow li bi ngay wax moo ngi ci yow dooy doy dooy négocier na nga ci boole ajuma même s'il le faut yi nga heure yi ngay perte ci àjjuma bi nga rattrapé ko ci yeneen jour proposé ko sa patron su dul loolu ñetti ñetti àjjuma yu nekk fexeel jël sa jour xaw ma jël sa xaw ma lan dem julli ji juma dem xadaratul juma bu dee tijaan nga mais nan ah liggéey bi liggéey bi liggéey bi ba doo def xadaral juma liggéey bi liggéey bi doo bàyyi bàyyi wérd ku bàyyi ay sunna da ngay mujj daal di bàyyi farata loolu il faut que ñu bàyyi ko xel moo tax jaamu yàlla il faut ñuy muñ di jaamu yàlla mbokk yi yëf yi neexul yàlla tagg na leen nag ñooñu yàlla nee na tatajaafa junubuhum anil madaaji'i ah yàlla nee na am na ñoo xamante ni lu nelaw neex-neex lu cuuraay yi xeeñ xeeñ lu mbàjj yi nooy nooy lu soxna yi préparé préparé su su yàlla wootee ñu bàyyi fa lépp jub jublu ci yàlla allahu akbar waaw waaw yàlla nee na ñooñ nag maa ngi leen dencal loo xamante ni nopp musu koo dégg bët musu koo gis lamiñ musu koo tudd xol musu koo yëg mooy lan ngërëmul yàlla yàlla nañu ko yàlla defal waaye sëñ bi nañu waxante dëgg mag ñi seen coono yii seen xalwa yii seen jalwa yii naafila yu metti yii jaamu yàlla gu dul jeex gii sikkar yu jeex yii dëddu àdduna gii xam ngeen ni am na lu ñu bëgg am na lu ñu xam am na lu ñu gis am na lu ñu gis de te loolu ñu gis def ko seen objectif mooy fexe am ngërëmal yàlla subhaanahu ah wa taala loolu mooy affaire bi te loolu fii lay tàmbale ci àdduna wallahi yàlla ubbil la yépp jox la teraangay àdduna jox la teraangay yàlla ku jubli ci moom mu jël àdduna bi ak li ci biir jox la ko waaye ku jubli ci àdduna àdduna dina xëy fase ku jubli ci àllaxira su ëllëgee nga am àllaxira waaw waaw ndeysaan jërëjëf ku nangu noppalu Cheikh Omar Fouti moo koy moo koy wax radiyallahu taala anhu jërëjëf Sall mhm. kon euh, mbokk yi euh, yàlla nañu yàlla dimbali maa ngi soñ ñëpp ñu góorgóorlu di muñ beneen muñ bu mujj bi nag mooy di muñ ci dogalu yàlla yi yàlla lu mu dogal muy mu neex muy mu naqari nga muñ ko te loolu euh, soo ko gisee ci àdduna da ngay xam ni muñ amatul <laughs> réseaux sociaux yi moom mooy preuve bi réseaux sociaux yi mooy preuve bi léegi loolu naqar yi nga def ko profile loolu kii nga ti waaw exposer say sentiments say di mer rek waaw jàmbat rek gis nga Sénégal réewu jàmbat la jàmbat jàmbat jàmbat jàmbat yi jàmbat syndicalistes yi jàmbat sëriñ si jàmbat footballeurs yi jàmbat réew moo xamante ne ñëpp médecin lañu ñëpp sëriñ lañu ñëpp docteur lañu ñëpp pharmacien lañu koo toogal ne ko sam bopp day metti mën la jëlal nangam boole la nangam kiyal nangam automédication ah lépp lépp lépp kenn ku ci nekk foo toog jàmbat suba jàmbat ngoon jàmbat guddi jàmbat ba jàmbat bëccëg fàtte di di fàtte sant yàlla di fàtte sant yàlla <laughs> di fàtte sant yàlla yàlla yow yaa wax ni yàlla moo la def mais yàlla yow waxagoo yàlla lim la defal yow lim la def rek nga wax de waaye waxagoo lim la defal te lim la def moo gën ci yow même bu dellu lu naqari la lim la defal ba tey waxu goo ko xamagoo ko xam nga moo tax euh, euh, euh, yaakaar naa daaw jéeg la bi ñuy def sunu marche boobu ñuy def ca Thiès masiratul hamdi wa shukri wa salaami bi ñuy def le 18 bii di ñëw ca Thiès dañoo gis njaboot gi mbokki taalibe yi ñoom ñëpp ñu def seeni weer blanc di tudd yàlla di dox ci mbeddu Cees yi ñëpp génn waa Cees yi xamu comprendre ñu am ñu xamante ni dañoo kar gaa yi ne leen waa yéen seen yére yi ngeen sol ak dal gi ngeen àndal ak di tudd yàlla nii waa lan la loo leen di réclamer loo leen di revendiquer mbokk yi ne leen ñun dañuy sant yàlla rek ñun revendiquer wuñu dara ñun dañuy sant yàlla ndax yàlla lim ñu defal te xamuñu ko te yëguñu ko moo ëpp lim ñu defal te ñu ko te yëg ko te comme ñun fu ñu toll dañuy jàmbat nag ñu jël bés bii nag def ko bés boo xamante ni amul zéro jàmbat la amul amul jàmbat zéro jàmbat lépp alhamdulillah la loolu mooy marche bi de du leneen <laughs> ñu bëri nag dañuy gis gaa yi génn sol seen i wert jugee taaxi kaw wër dem ba maire yi daal di wër dëkk bi di la wax laa ilaha illallah di wax alhamdulilah xamuñu dan naan ñii dañuy génn dañuy xawma lan dañuy ku nekk di wut sa interprétation mais am na ñoo xamante ni ay la lañu dañoo ñëw ci gaa yi laaj leen ne leen yéen waa loo leen di dox lan la loo leen di dox qu'est-ce qu'il lu lu lu tax ngeen def nii foo leen jëm lan la ñu leen ñun dañuy sant yàlla rek <laughs> xoolal dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla <laughs> loolu sëñ bi rëy na de dañuy sant yàlla dañuy génn di marche comme ni syndicalistes yi di marché comme politiciens yi dañuy marché comme nii rek euh, euh, activistes yi ni ñuy marché comme xulookat yi ni ñuy marché comme xeexkat yi ni ñuy marché <laughs> comme opposants yi ni ñuy marché waaye ñu ne ñun marche ñu ngir dara laaju ñu dara wutuñu dara sàkkuwuñu dara dañuy wax yàlla alhamdulillah jeex na yàlla nañu yàlla dimbali mbokk yi loolu suñ ko toppee fii la ñuy fanaan te dinañ ci ñëwaat léegi ndax euh, sunu maam sunu sëriñ cheikh alxaaji omar al fuuti radiallahu taala anhu def ñoo euh, jàngal euh, ne ñu euh, tasawuf tasawuf bi nga xamante ni wala tazkiya ah wala tazkiya parce que moo nga am na ñoo xamante ni fi ne nii ay julit lañu ay borom xam-xam lañu waaye soo leen laajee koo leen gën a bañ ci kaw suuf dan naan la soofiyanke yi ñi ñuy wax suuf yi da koy gis sax ci Facebook les suufi yi les sont des hérétiques les soufis sont des xawma lan les soufis te yow xamoo te moom moom di wax loolu imam boobu di wax waaraatekat boobu di wax soo ko laajee na ko luy suufi xamu ko wala définition ba mu lay jox mooy définition ba mu ba mu jàpp ni moom mooy suufi wala mu xool ci suufi yi kenn ko def benn erreur wala mu wax benn erreur mu juger ci suufi yi yëpp ne suufi yëpp noonu lañ mel. wax naa ko démb il faut pas jeter l'eau du bébé avec le bébé sang sa doom ba mu set nga jël ndox ma nga ko sangee ak sa doom daal di jël xalab ci poubelle ba dem sànni ko ca ca mbalit ma loolu nit dina ko def nga gis benn médecin bu def benn erreur nga ne médecin àdduna bi yëpp kenn baaxu ci benn pharmacien juum nga ne pharmacien àdduna bi yëpp kenn baaxu ci benn mécanicien yàq sa oto nga ne mécanicien àdduna bi yëpp kenn baaxu ci sa benn mbokk def accident ci avion nga ne pilote àdduna bi yëpp kenn baaxu ci am na ñoo xamante ni xa xolo nga ko topp de yow yow mii di ma déglu mën ngaa joxe fukki exemple ak juróom-ñaar am na ñoo xamante ni pas-pas bii la ñu am lépp lu ñu gis ci sofianke yi dañuy jël benn cas particulier jugé ci le cadre général et ça c'est très très dangereux c'est hypocrite ta lu ñàkk a maanu ñu lu ñàkk dëggu la te loolu nit ko bon nit ku soxor moo koy def mais loolu c'est très grave <laughs> loolu c'est très grave te yow xamoo tasawuf tasawuf da ngay dem ci sofiyanke yu baax yu sell yu set yi nga laaj leen luy tasawuf ñu wax leen ne la tasawuf mooy école bi jàngale le troisième niveau de l'islam yow nga xam ne yow ci saa si boobu rek yow ci ngay xam ne ndekete yow primaire nga nga nekk yow àggago sox secondaire te ñii ñoom ñoo nga université ba nekk agrégation waaye on boxe pas dans la même ring sëñ bi <laughs> loolu la il faut faire attention moo tax man souvent j'utilise la moo tazkiya pour sauver leen bi mooy lan mooy dellu ci qad aflaha man zakkaaha qad aflaha qad aflaha texe na mucc na rëcc na sauvé na man zakkaaha ki yar bakkenam xam-xam boobu di yar bakkenu doomu aadama yar banneexu doomu aadama di raxas xolu doomu aadama di raxas baatinu doomu aadama di raxas biiru doomu aadama di raxas jikkoy doomu aadama moom la wax tarbiya moom la ñuy wax tazkiya moom la wax tasawuf mu jeex loolu mooy tasawuf pour lan nga mën a àgg ci dëggi dëggi tasawuf dëggi dëggi tasawuf Cheikh Tijani radiallahu anhu nee na mooy nga jaamu yàlla ah mooy nee na nga jëfe ndigalu yàlla yi bàyyi tere yàlla yi ci biir ak ci biti ci ni ko yàlla bëggee pas yow ni nga ko bëggee wasalaam cheikh de lii la wax te ba mu ko définir la ñëpp noppi cheikh ba mu définir tasawuf ci la ñëpp bàyyee définir tasawuf nit yàlla yëpp fi mu ci jamono koo ci wax koo ci wax ne ko définiral tasawuf danaan la déedéet man demal jëli ji définition bu Seydi Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu demal jëli ji définition bu Seydi Ahmed Tidiane radiallahu anhu ndax définition boobu c'est une définition complète parfaite qui rassemble tous les flancs toutes les dimensions de cette notion qui est la tazkiya qui est le tasawuf qui la tarbiya loolu kese la day laabal ci biir wax naa leen ko man la soo bëggee sangu janaaba baa nga bëgg a laab dégg nga baa nga bëgg a seet doo duggee ci wanag wi ni ngay defaroo baa nga bëgg julli baa nga bëgg a set loolu ustaas bi moo koy jàngale da ngay dem ci moom wala nga dem ci internet mu jàngal la nu ñuy sangoo janaaba mu jàngal la nu ñuy jàppee mu jàngal la nu ñuy defaroo nu ñuy setee ju jigéen ak gisi ay réglam ba jeex nan lay nan lay setee nan lay setalee boppam loolu ustaas bee koy jàngale bokkut ak nag nga am ay jikko yoo xamante ni bët du ko gis nga am ay sobe yoo xamante ni bët du ko gis kooku wëlu yu ba xam waay ya xam les nuances xam kooku la lan mooy kooki nañu dem wala mu wax erreur wax la mu wax la religion musulmane parce que conir c'est démolir un dire même c'est c'est parce que soo gisee problème yi euh, euh, radicalisme euh, gi soxor gi waral lan moo ko waral actualité les cœurs sont dép ñoo ràgg xol yi ñoo feebar jëmm yi ñoo ngay julli ñoo ngay du ma ko waxee yéen mën ngeen koy juge yee tilim xol yi am ay ji di wax nii leen leen lu ci nekk am seen bopp yéen ñi nekk ci internet kay gars yi di rayante nan nga mën a jullendoog sa morom ci biir hmm? doog sa morom ci jàkka te duñ ko tëree nga jumaa joo xamante ni ñaari ilimaan ci benn juma ci biir jumaa ko yooyu yëpp ça montre que les cœurs sont malades Les son sont malades. Pourquoi Parce que qu'ils son attaqués par des virus moraux. Par des virus moraux. te doo laajee informaticien yii xam nan lan mooy danger virus jamono yee ci ginnaaw am na virus boo xamante ni waxuma la ordinateur yi ak site internet yi waaye état yu bëri da leen song daaneel leen yàq seen système yëpp seen intranet yëpp te virus kese la soo demee ci médecin yi amin ya rabbi amin taal jërëjëf taal macha allah waaw kay soo demee ci médecin yi maladie euh, euh, euh, bari na fitna ak maladie yoo xamante ni li koy waral mooy ay virus ak ay bactéries yoo xamante ni yow da koy xeeb lool Ebola ah sida ah tuberculose ah virus yooyu bacille yooyu ah bactérie yooyu ah ñuy indi feebar yi gën a dangereux ci kaw suuf Cheikh Omar nag nee na radiallahu taala anu virus yooyu ak feebar yooyu li muy dangereux dangereux mu ne am na ko am na virus yu ko gën a dangereux mu ne parce que virus yooyu ay médecin ñoo koy faj ay médecin ñoo koy faj te médecine conventionnelle bi ñoom ñëpp ñoo bokk daanaka même protocole yi à des différences près dégg nga waaye mu ne am na yoo xamante ni ñoom seeni seeni maladie ñoom médecins yi am nañ ay scanner am nañ ay fibroscopie am nañ ay analyse am nañ ay crachat yoo xamante ni suñ ci jaaree dinañ xam lu lay daal dinañ ko gis ci bët baa ñu gis ko ci ay signe baa ñu gis ko ci machine feebar yii Cheikh Omar tudd nag radiyallahu anhu nee na yooyu bët du ko gis day manifesté wu ci ay jikko rek yow yaay dem ba yëg ni feebar yi moo ngi ci yow nga dem ku la wut ku ci dimbali baa nga dajeeg ku wax feebar yi nga xam ne yow moo ngi ci yow nga dem wuti ku la ci dimbali Cheikh Omar nag nee na juróom-ñaari feebar radiyallahu taala anhu nee na mooy attaqué xolu jaam bi nee na sept maladie waaw euh, sept maladie ñooy attaqué xolu jaam bi sept maladies ñooy attaqué xolu jaam bi sept maladies ñooy attaqué xolu jaam bi benn maladie bu songu jaam bi rek mën naa am problème ci digganteem ak boromam du àgg ci yàlla mukk Cheikh Omar nee na radiyallahu anhu nee na dafa am siraat boo xamante ni yàlla wax na ko rasulullah ne ko du ëllëgee yowmal qiyaama suñu àttee jaam yi ba pare ci bisu àjjuma boobee ci diggante tàkkusaan ak timis adduna tukki ci diggante timisa ak nit ñi dekki ci diggante gée jëm jëm guddi nit ñi kuy dem aljana dem aljana kuy dem sawara dem sawara gis nga du ñuy dox noonu nag dañoo war a jéggi siraat siraat yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën a sew kawar gën a ñaw lañ set gën a yëngatu jaan ju ju ñu rey te deewagul moo ko gën a yëngatu waaw agile waaw yëngatu daal bi maanaam hmm. yonent nee na dañ ko jël gàcc ko dañ koo teg ci kaw comme seton un pont nee na siraat pont la boo xamante ni kenn mënta dem aljana te jéggiwoo ci pont boobu kenn mënta dem aljana te jéggiwoo pont boobu te euh, li gën a garaaw mooy suufu pont boobu pont bi ñoo ngi koo tabax ci kaw ci kaw suufu suufu pont bi jahannama la safara ci suufu siraat la nekk waaw léeg gis ay pont yoo xamante ne ay Mississippi ak Alabama yooyu seen seen pont yooyu day am ndox ci suuf nga xamante ne doo pëtëxee ci pont bi ci biir ndox mi nga jëm noonu la mel c'est la même chose wala pont wu ndar bi pont wu ndar yéen ñi dem ndar pont wu ndar pont wu ndar du dindi woon pont bi lépp ndox lay doon yonent nee na noonu la mel soo jaarul ci pont bi nag doo dem aljanna mooy l'autre rive l'autre rive mooy aljanna beneen rive bi mooy fi ñuy àttee jaami yàlla yi léegi nag ku nar a texe yal yàlla boole dangay ngay jéggi ànd ak rasulillahi sallallahu alayhi dem ku nar a texe di nag soo jaaree nag dangay pëtëx te nee nañ jug gi ju junni at la yemoo gi junni at la dox bi pour jàll junni at la muy ñetti junni at ku yàlla dimbaliwul doo dem te kenn ku ci nekk yaa ngi dox di jéggi siraat selon selon say jëf nu mu toll ci lu baax laa ilaha illa moo tax yàlla ne woon kaana fa man yaamal mithqaala darratin ah xayran yarahu wa man yaamal misqaala daratin charran yarahu fee mu ne man amila saalihan fali nafsihi man amila saalihan fali nafsihi ma ngoog yëf yaa ngoog kon mbokk yi yal nañu yàlla dimbali Cheikh Omar na nee na siraat boobu yowmal xiyaam la Cheikh Omar nee na siraat boobu bala nga ko mën a jéggi il faut nga jéggi siraat bii nekk ci kaw suuf loolu nag moo jommal ñëpp ñu ne ko waa siraat bi bi nekk ci kaw suuf fan la nekk ci kaw suuf mu ne siraat bi ci yow la nekk ñu ne ko fan la nekk ci ñun mu ne ci seen xol la nekk <laughs> mu ci seen xol la nekk moo tax mu wax démb ne usluk bina masalikan najaati wa najjina rabbi min al aafaati gis nga usluk bina masalikan najaati nang ñu teg ci yoonu muccu muccuwaay yi Cheikh Omar mooy ñaan yàlla de wal tu uh, uh, usluk bina masalikan najaati wa najjina wa najjina ta nga musul ñu yàlla yow yàlla min al ci bépp gàkk-gàkk ci bépp tilim tilim ci bépp virus moral virus les virus moraux les bactéries morales ah les bacilles moraux Cheikh Omar nee na yàlla musal ma ci raxas ma ci raxasal sama xol ba mu set usluk bina masaalika najaati wa najjina rabbi min al aafaati wa yassir rizqa al xalaala bil hanaa yaa zal jalaali wal jamaali lutuf bina uyuubana stur wagfiran zunubana kalla wala tushmit bina aduwana wala tusalli zaaliman zaluman wala daciifan wa qawiyan yawma wa tahir déggal mu ne wa tahiri nufuusa loolu moo ñu waxtaan loo tey jii wa tahirin nufuusa benn mbokk mu baax wax naa leen ko sànq ca senegal moo ma woo ne ma nanga wax ci juróom-ñaari feebar yi Cheikh Omar wax euh, euh, wéeru ci démb loolu nga ubbi woon ci wa tahirin nufuusa wal arwaaxa wal qalba wal asraara wal ashbaaxa tey wa tahirin nufuusa rek la ñuy waxtaane mooy yàlla laabalal suñuy bakken pourquoi parce que kadaf aflaha man zakkaaha a certes réussi et certes sauvé celui qui l'a purifié qui a purifié qui son âme mooy sa bakken hmm? sa bànneexu bakken lépp lu lay tàggaleeg yàlla li li tax ngay bokkaale yàlla dëgg dëgg dëgg moom la lay wax ne la danga koy laabal nga fóot ko yàlla ñu yàlla suturaal Cheikh mar nee na euh, nee na siraatu yowmal xiyaam moo nga foofu di ñu xaar mu ne seraatu kaw suuf bi moo jar a lijjanti <laughs> moo jar lijjanti ndax siraat boobu mën nga boo ànd ak mbooloo ma garaawul mais siraat bi ku nekk sa siraatu bopp la mooy sa xol moo tax problème bi yëpp problème de xol la nit ñi ñoo ngi rawantee ci xol yi yàlla ñu yàlla fóotal suñuy xol yàlla laabal ñu ko ya laabal ñu ko yàlla nee na yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin ah yàlla yowmal xiyaam yàlla du xool kenn lu dul borom xol yu set yi xol bu set nag ni nit ñi jàppee ak li mu doon bokkul de déedéet xol bu set ak ni ko nit ñi jàppee bokkul de xam nga nit ku tabe ak nit ku bari yërmande mën a joxe mën a def yooyu ay jikko yu baax la mais loolu du xol bu set de xol bu set mooy xol boo xamante ni lépp luy bànneex dee na ca ba boroom xol ba du yàlla woote mu wuyu ko loolu mooy xol bu set de <laughs> duy gaay yi ñuy wax de yi ñuy wax léeg-léeg ñenn ñi di ko wax ci ci ci ci plateau yi di euh, mooy ñooñu di def ay ay jotaayu góor ñeek jotaayu jigéen ñeeg ay euh, waxtaanu 11h man xawma ma jotaayu góor fan la am ci kaw suuf jotaayu góor ñi jo jotaayu góor ñi yow doxal wuti ji loo yóbbu sa kër nga naan nga naan nga naan jotaayu góor ñi nga naan jotaayu góor ñi góor ana góor ak jotaay doxal ca jàkka ja julli ji doxal wasifa ji joxal wérd ji doxal jàng ji xasida doxal doxal ca tool ya doxal yenu ji nga naan nga naan nga naan jotaayu góor ñi. jotaayu jigéen ñi looy def foofu 11 jigéen ñu baax ñëpp a ngay toggal seen jëkkër de yow ñi lay déglu jigéen ñu baax ñi lay déglu ñoom ñoo nga ca waañ wa di la déglu di rëgal di waajal seen jëkkër yow nga toog ca télé ba di taxawaal di wax ñàkk bopp bay bëgg a kenn mësul gis lu mel noon yàlla ñu yàlla suturaal yooyu yëpp ay feebar la ay feebar la yàlla seede na ni bind naa ko waxtaan bi ba pare thème bi bind naa ko am na waxtaan bu may wàcc ci benn phénomène bu dangereux phénomène bu dangereux <laughs> mu nekk waxtaanu boppam incha allah phénomène. gaa yi buntu boo boo tijji buntu boo tëj ñu ubbi beneen waaw am na phénomène bu dangereux waaw boobu xewagul woon moom la ñuy wax phénomène boobu moom la ñuy wax tiim yi tiim waaw ñaaw na lool ci xeetu yonent yàlla Muhammad ñaaw na lool ci suñu jeunesse bi waaw tiim <laughs> dinaa ci def waxtaan spécial waxtaan spécial team waaw am na ñu bëri xamuñu ko TEAM ah waay team mooy mooy équipe am nañu luy luy team am na ñu ko ci xam waaw dinaa ci def waxtaan spécial tiim les team team yi team yaa ngi toj Sénégal <laughs> team yi team yaa ngi toj Sénégal ñuy coow rek gars yi dangereux mooy tiim te tiim yaa ngi toj dëkk bi tiim yaa ngi toj dëkk bi mbokk yi waaw tiim yi ñoo ngi toj dëkk bi <laughs> waaw nii koy waxe ba ñëpp bàyyi ko xel te ñu laajtee lan mooy tiim am na ñu xam luy tiim tiim yaa ngi toj dëkk bi mbokk yi dinaa ci def waxtaan spécial ci tiim yi tiim hmm, toj nañ dëkk bi de sunu jeunesse bi xalak nañ leen de yàq nañ leen ñoom ñëpp ñoom ñooy def soire sangara yi di def soire li ñuy wax piscine party yi ñooy def seen baatal yi baatal seen euh, baatal yi baatal lañ koy wax ñoom baatal yoo xamante ni fecc yiwadi di toppandoo jamaïcain jamaïcain yi ak waa euh, Tobago Trinidad hmm? Jamaï jamaïcain du ma koy wax je fais pas allusion au au reggae mais ah, beneen musique bi ñuy wax dancehall wala raga dancehall <laughs> xam naa bu baax li may wax ñi am na ñu xamante ni xam nañ bu baax li may wax tiimi toj nañ dëkk bi incha allahu taala du ñu yàlla dimbale dinañ ci def waxtaan spécial yàlla nañu yàlla dimbali barke alquranul karim waaw mu ngoog kon euh, euh, Cheikh El Hadj r radiyallahu taala anhu nee nañu ñun daal suñu bëggee texe nañu nañu jaar ci siraat bii ci kaw suuf bala ñuy jaar ci siraat bee parce que texe fii lay tàmbalee ci àdduna jëm euh, jëm alaxira Seydina Omar nee na xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu turandoom Cheikh Omar Fouti ma wax lii Euh, Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu nee na nit ku nekk bala nga tëdd war ngaa xam fi nga jëm parce que calcul rek la loolu jarul mathématique bu dëgër bés bi xoolal li nga def ci lu baax xoolal li nga def ci lu bon nga peese bu dee lu baax li moo ëpp nga sant yàlla góorgóorlu bu dee sa safaan bi moo ëpp nga góorgóorlu tuubal yàlla jéggulu yàlla fas yéene jublu ci li yàlla gërëm lii rek mooy affaire bi y a pas autre chose amul beneen pexe amul beneen solution amul beneen pexe amul beneen solution waaw kenn ku ci nekk nga jël say responsabilité bu baax ci sa diine ci sa bopp te ubbi suñu ubbi suñuy bët tey xool dafa jot de am na phénomène yu graaw yu bees waaw am na ñoo xamante ni ñoo visible seen soirée sénégalaise yooyu seen soirée dansante yi soirée yi nekk ci Mbuur yooyu moo visible mais tiim yi tiim yi T e A M tiimi yaa ngi toj sunu jeunesse bi blow naan sàngara tox jigéen ña ak góor ña léeg-léeg ñu def ko ñetti fan luye seen kër gu mag nekk ca di fo di naan comme euh, spring yu américain yi allahu akbar kabira la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu dimbali te dimbali sunuy njaboot mbokk yi yàlla nañu yàlla dimbali te dimbali suñuy njaboot yàlla nañu yàlla suturaal te suturaal suñuy njaboot yàlla nañu yàlla gindi te gindi suñuy njaboot yàlla nañu yàlla fóot suñuy xol fóot suñuy xol yi njaboot yàlla nañu yàlla musal ci fitna jamono yi ak xat-xati jamono yi ak yàq-yàqu jamono yi yàlla nañu yàlla musal ci ravage yi Facebook di def ak YouTube ak WhatsApp ak réseaux sociaux yi ak yeneen yi waaj a ñëw Instagram ak ak yenn yu aji ñëw Instagram ak Twitter ak yeneen ak yeneen yëpp yàlla yàlla yàlla yàlla nañu yàlla yiir yàlla nañu yàlla musal yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla protéger contre tous ces phénomènes et ces fléaux et ces fléaux dévastateurs yàlla nañu borom bi tabaraka wa taala dimbali ci barke sayyiduna Muhammad na alayhi wa sallam barke gaa yu baax yi tabaraka Allah yàlla nañu yàlla dimbali ah metti na na waar waaye nag da ngay xam li ma leen waxoon rek nu sommes à la fin des temps àdduna mooy waaj tukki <laughs> kon ku yóbbu rek takk say bagaas euh, wuti yàlla jaamu yàlla ah dem hmm, euh, ànd ñu baax ànd ak ku baax ànd ak fu baax di dox ci lu baax di gër di gëstu lu baax di wax lu baax loolu daal moo fi sës waaw ah, kay ma di di di di di laab balan lay sang di sang sa bopp balan lay sang ah, di jul di julli balan lay jullee di woor ba ngay bala ngay dugg ci biir bàmmeel di xiif yaa ngi dégg ba nga jox sa bopp yàlla waaw bala bala nit ñi taxañ laxas la ba noppi takk say tànk takk sa bopp jébbal la sa bàmmeel wu ne wërëñ ñibbi sax yi song la war a lekk sa yaram wi waaw ndeysaan nga war a wéet ak malaayika yi waaw kay sa bàmmeel di benn kër ci këru aljana yi wala mu war a nekk benn turu ci turu sawara yi yal nañu yàlla musal mbokk yi yàlla seede na ni ah, li tax ma ah, wax ci tiimi tuuti nii dama koy wax pour amortir ko ndax xam naa ni su ma ci defee waxtaan te te préparé wu ma ko nii sànni leen ko tuuti nii dina nekk lu doy waar waaw tiim yi nañ sunu xolu njaboot yi nañ réew ma waaw PNG <laughs> tiim yi party spring break à la hmm? party battle yi blow yi hmm. waaw yaakaar naa comme dégg ngeen ko rek alhamdulilah yàlla nañu yàlla dimbali moo ko su ko defee uh, incha allahu taala euh, ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dimbali ñu ba li Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu wax ci euh, ñaari uh, siraat yi mooy siraat bee di ñu xaar ëllëg ak siraat bi nga xamante ni c'est l'ensemble des obstacles moro yi nga xamante ni mooy bloqué nit ki ba doo àgg ci yàlla euh, Cheikh Omar nee na il faut que ñu jéem ko jéggi pour mën a àgg ci borom bi tabaraka wa taala su ko defee hmm, ñu ñaan yàlla mu nangul ñu jéggal ñu baal ñu suturaal ñu te euh, dimbali ñu ba ñu jéggi juróom-ñaari sira euh, juróom-ñaari jéggi ki juróom-ñaari siraat yooyu nga xamante ni benn bu ci nekk day bloqué nit ci digganteeg mag boromam Cheikh mar nee na euh, euh, xaj du lekke ci ndab yow julit bi yonent nee na da nga koy raxaseek suuf juróom-ñaari yoon waaye mu ne tamit seytaane du du du du du du laalee la du laale xolub julit nee na juróom-ñaari ndox lañ ko war a fóotee juróom-ñaari ndox yooyu suñ ko fóotul rek mu ne mar googu seytaane mar sa xol wala mu laal ko wala mu tufli ca wala mu def ca dara aha uh-huh, mu ne loolu day mujj jur juróom-ñaari feebar waaye nag Cheikh Omar ku baax la ndax mënu nañu wax feebar bi te duñu wax li koy saafara bam mu ñu waxee feebar bi rek ci saasi la ñu wax lan moo koy saafara ta taala anhu wax ñu feebar bi nan lay manifesté woo ak feebar bi waaw ah, soxna Njàllo njëgën maam as amarek ñëw ci Saalum Njool Faatum toog maa ngi tuub bu baax tuubal yàlla bu baax yàlla séede na ni ah, ku ci mel ni yow mi ak soxna amital bu euh, Serigne Thierno euh, Bachirou Muntaqa Taha Cheikh Umarul Fouti waruñoo nekk fii sax may dugg ci yenn yi waaye euh, damaa xam rek ne maa ngi waxtaanee ay thèmes yoo xamante ni ñi ko gën a moom mooy sunu jeunesse bi sunu sunu doom yi. tiim tiim tiim angale la waaw bi bi bi time lay doon waaye tiim day yàq time anglais la team moo ngi tudd euh, moo ngi tudd moo moo euh, mooy signifier ci fra ci ci euh, par exemple te jii ci anglais su ma la su ma la bëggoon laaj ne lan ban mooy sa équipe bi nga gën a bëgg dama naan la what is your favorite team what is your favorite team wala wala ma la du ma la bëggee laaj ne la lan mooy Euh, euh, euh, lan mooy par exemple réew mi nga gën a bëgg ci anglais dama naan la wati waaw waaw équipe équipe foot bi nga gën a bëgg waaw boobu baax na sax je crois exemple boobu mooy yow ban équipe football moo la gënal ci équipe yëpp équipe mooy team en anglais dina signifier tamit staff mooy ñi ngay bokkal di yëngatu di def dara dina équipe dina signifier mbooloo moo xamante ni yéen a bokk gis-gis bokk bo bokk bëgg-bëgg di ko liggéey léegi nag Sénégal xam nga <laughs> nañ dellu ginnaaw tuuti bu team c'est ça Aboubacar euh, euh, euh, Aboubacar jaajëf waaw jaajëf sama sama mbokkum Maroc sama mbokkum Maroc ba Aboubacar xam na xam na xam na li may wax bu baax am na samay am na ci njaboot gi ñoo xamante ni fi ne ni jël nañu wér de salaat fatiha tiim lañ bokkoon te kilifay tiim lañu woon <laughs> tiim lañ bokkoon limay xam ci tiim nii ñoom ñoo ma ko xamal man xawma woon tiim tiim am na ci taalibe yi laa wax njaboot gi ñoo xamante ni jël nañ salaatu faatiha fi mu nii di ko wér am nañ ci at ñii ñaari at tiim lañ bokkoon ci ay tiim lañ bokkoon te dañoo jiite woon sax tiim ñoo ma wax li nekk ci tiim yépp ba ma découvrir ba xam luy tiim xam nga bu njëkk tiim doo ko bëggee comprendre c'est très simple maa ngi tuub tey jégglu yéen sama sang yi nekk ci ligne bi di ma déglu ak kilifa yi nekk ci ligne bi di ma déglu euh, waaye bu njëkk ci koñ yi ay groupe moo fa amoon ay groupe ay groupe xam nga équipe football la daan doon ñu ne ñii ñooy Brésil ñii ñooy euh, euh, Allemagne ñii ñooy waa kii ga xëy ga ñii ñii ñooy waa kii waa Paris ñii ñooy koñ bu nekk ci biir koñ bi sax day am ay équipe équipe yooyu nag day nekk ay groupe de copains groupe yooyu groupe la daan doon groupe lan daan wax groupe lañ xam groupe lañ daan dégg da ngay dégg ñu naan ak groupe bu ñoom diw génération bu nekk ñooy ànd am seen groupe léegi nag seen groupe waaw kay léegi kenn ku ci nekk da am sa copine da ngay am sa gel bi maana dégg nga ah pour pour gars yi comprendre léegi groupe boobu nag léegi ñooy organiser seen i 31 décembre seen vingt 24 décembre léeg-léeg ñu def euh, groupe yi daal di def ay jumelage juge Thiès dem euh, Géejawaay jugee Géejawaay dem euh, Bambey loolu ay groupe la groupe mais bu njëkk moo ngi yaboon ci organiser ay baal ak ay kolederaak ak ay fuuralak yëfi ñàkk fayda yooyu daal yooyu daal lan daan ko kii léegi nag xam nga groupe amatul génération bi ci ginnaaw yëpp groupe groupe amatul fekk groupe am na euh, groupe yooyu soppi def ko mu nga léegi mooy dajal di def ay euh, di di di def ay rassemblement xam nga rassemblement yi pour lan la blow moo duñu am sax 19 ans jënti ba am otoom ba tamit ba am dégg nga soldat yu cher waaw noonu loolu loolu mooy tiim suñ defee seeni réunion dajaloo waxtaan fix euh, macha allah <laughs> joxante seeni rendez-vous wut seeni soirée nekk ca di fo di caaxaan loolu la def su ko defee léeg-léeg dañuy jóge Thiès ba kawlax léeg-léeg ba Casamance léeg-léeg Casamance ba Ndakaaru tiim yi nag di ëppante di xeexante xam nga bu njëkk da naan groupe sangam ñoo gën a jantal ñoo dàq fecc ñoo gën a nangam ñoo groupe groupe yu njëkk yooyu léegi groupe yi léegi ay tiim la. rafet ay jiin yu rafet dàll yu cher parfum yu cher jigéen ñi futteeku góor ña futteeku ñuy doye di di caaxaan moom la ñuy nekkee. créer organiser ay spring break organiser ay piscine party organiser ay battles. dégg nga battles yoo xamante ni du battles u rap du battles <laughs> u du battles euh, euh, u rim waaye battles yi battles u yi wadi kase la futteeku summeeku di doye di di toppandoo euh, patra di toppandoo di toppandoo saay saay soos nga xamante ni ñoo nga fee ca ca Jamaïque ak Trinidad Trinidad di def fecc bu bon boobu ñuy wax den sol ak yeneen fecc yu bon yu mel noonu nga xamante ni lépp c'est sexuel loolu mooy tiim maa ngi jéggalu bu baax a baax waaye lii moo ngi toj dëkk ba ñi gaa yi xam li may wax xam nañ ni tiim yaa ngay toj dëkk ba soxna si lii mooy tiim kon groupe la boo xamante ni ay jeunes lañu duñu am vingt ans ca la ñuy yem ñuy dajaloo di waxtaan di kuy ñëw oto ngay indaale sol yére yoo xamante ni day cher dàll yu cher mbaxan euh, yu cher casquette yu cher dégg nga dajaloo waxtaan organiser seeni soirée mais soirée ya wala seen ñetti fan seeni yendu yoo xamante ni dañuy wut piscine ca ca ca biir kër ga kër lañuy ñuy nekk fa di def lu kenn mënta nettali léeg-léeg sax soo demee ci YouTube di fa fekk ay vidéo ay tiimu senegal di toj dëkk bi waaw kon waaw di tox waaw di tox ah, chicha moo yooyu la ñuy def yooyu yëpp ca biir la tox chicha tox yamba euh, di fo di naan sàngara di di di di di di di doye di moom la ñuy nekkee ba la ñuy dox jeex ku nekk dem ñibbi léegi nag su ko defee sa doom nga yaakaar ni dafa demoon jàng ji wala dafa demoon carrière ji fekk ci tiim la bokk loolu mooy tiim yàlla ñu yàlla musal léegi incha allah xam naa ni su ma ko toppee fii la ñuy fanaan dama leen di ñaan rek ñu ñu ñu ñu ñu dem ci waxtaan wi incha allahu taala ngir waxtaanee lii Cheikh Omar wax ci feebaru xol yi dinañ def spécial tiim dinaa def spécial waxtaan ci team yi ak ñi koy organiser ci senegal ak télévision yi koy promouvoir ci Sénégal ak fan lañ koy royee ak ñoom ñi nga xamante ni team fan la tàmbalee ci ñoom ñoom la lan moo tax ñu créer team leeral ko waaw ba ñëpp xam euh, ne euh, c'est des choses très très très dangereuses yoo xamante ni ku ko topp rek soo watul yàlla xalak la waaw gaa yi ñoo am na ñoo xamante ni ñoo ngi ci seeni i affaire dund seen dund dox la ñuy dox mais àgguñu ci loolu saay àgguñu ci loolu àgguñu ci ci ci ci di créer ay ay ay bokan yoo xamante ni ay musiba yoo xamante ni lu mat euh, euh, téeméeri jeune ñëpp dajaloo di fo di caaxaan pendant trois jours ku nekk laa ilaha illallah waaw loolu la loolu musiba la waaw loolu musiba la musiba la yàlla nañu yàlla dimbali <laughs> yàlla ñu yàlla dimbali ok bismillah kon euh, ñu dem directement ci waxtaan wi incha allah euh, euh, waxtaan wi nga xamante ni moom la Cheikh El Hadj Omar wax radiyallahu mooy siraat bi mu wax ne képp ku ko jéggul ci àdduna doo ko jéggi àllaaxira siraat bi nekk ci kaw suuf te mu nekk mooy soxal siraat boobu tamit moom mooy macha allah sa jikko yi nga xamante ni mu ngi sa biir xol te di ay virus moro di ay bactéries moral di ay bacille moro ah di am ay infection morale ay ay défaut moraux ay taar moral yoo xamante ni ñoo ngi sa biir xol te duñ la jàppee dañuy feeñ ci say jikko te suñ la toppee dinañ dem ba def la animal ngay mooy yàlla di def lu bon di topp sa bakken di doye di di ñàkk topp yàlla ba soo watul yàlla duma a ëllëg yàlla nañu yàlla suturaal bi jaahi sayyidina wa nabina wa lana muhammad sallallahu alayhi wasallam Cheikh Umar nee na juróom-ñaari feebar la juróom-ñaari tâche la juróom-ñaari défaut la juróom-ñaari taar la juróom-ñaari virus la juróom-ñaari bactérie la juróom-ñaari infection la yoo xamante ne du attaqué lu dul kër bi parce que kër bi du du du duñ ko songee rek nit ki duñu songee cœuram amin ya rabbal alamin njegéen amin amin yàlla nañu yàlla musal ñëpp musal ci suñu njaboot ci tiim wallahi tiim baaxul tiim baaxul waaw wallahi ndeysaan incha allah dinañ def waxtaan wu yaatu su neexee yàlla ma ngoog Cheikh nee na juróom-ñaari feebar yooyu ku mu takk ci yow si yow boo nga dem toogi ji xam ni musiba am na dawal seeti ku dimbali fóotal la soxol dindil la désinfecté la jox la ay détergent ak ay saabu ak ay omo ak ay ak ay ak ay njàmpe yoo xamante ni ci ngay foote soxol ba mu set wecc ngir nga mën a jokkook sa borom su loolu doo xàgg fenn fenn fenn nañ lim juróom-ñaar yépp suñu paree si ñu indi benn bu ci nekk Cheikh Omar nan la ko firee ñu indi benn bu ci nekk Cheikh mar nan la wax ne moom lay manifesté woo ci nit ki benn bu ci nekk tamit ñu indi Cheikh mar ban ban ban ban ban remède la joxe ndax Cheikh Umar ba mu ñu waxee feebar yi ba ñun ñëpp tiit ba santir ne feebar yooyu moo ngi ci ñun ñun ñëpp a jaaxle woon xamuñu fu ñu jëm mu ne ñu am naa remède képp ku ma déglu ma wax la remède yi incha allah dinaa wax feebar yi dinaa wax manifestation yi dégg nga Euh, pathologie yooyu yëpp dinaa wax tamit lan mooy remède bi ak posologie bi bi Cheikh Omar radiallahu anhu joxe nga xam ni Cheikh Omar mooy dëggi-dëggi médecin bu mag bi yàlla na yàlla fayal ñu ko ndax moo donn médecin bu mag bi muy sayiduna Muhammad ak Cheikh na Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu aywa bismillah ñu dem Cheikh Omar nee feebar bu njëkk bi mooy arriyaa mooy mooy mooy ngistal ah, alaaji maar nee na première du cœur mooy la maladie hein, l'ostentation le fait de vouloir toujours être au devant de la scène wallaay taal dëgg la bi ci gën a dangereux mooy la plus grande la plus dangereuse des maladies mooy la maladie qui t'a te yow xamoo ni maladie bi moo ngi ci yow moo ngi mel ni nga am cancer te yëgoo ko léeg-léeg da ngay dem ci docteur ñu ne la woo oh, stade final nga toll c'est fini pourtant doo ñëwoon un mois avant wala deux mois avant wala un an avant ñu mën ko saafara bari na ci ñoo xamante ni dañuy dem hôpital di faju ju fekk c'est trop trop tard pourquoi parce que ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient malades ils savaient pas qu'ils étaient malades loolu nag musiba mu rëy la Cheikh Omar moo tax toujours daf ñuy dimbali daf ñuy wax feebar yi wax ñu ni muy manifesté wu ba képp koo xamante ni yëg nga wala nga gis loolu ci yow nga xam ni am nga lu manqué ci yow su boobaa nga dem seeti mu dimbali la ci. waa kay bu njëkk bi nee na mooy ngistal ngistal mooy ngay fexe euh, ngistal mooy nga bëgg nit ñi di gis li ngay def waaw Cheikh Cheikh Omar nee na mooy nit ñi di gis li ngay def di yéem sa noppi di yéem sa njàng di yéem sa lépp looy def daal doo ko def ngir jëmm yàlla ayo bismillah ñaareelu feebar bi Cheikh Omar na mooy lu ñuy li ñuy wax euh, euh, li ñuy wax al ujubu waaw mooy yéemu waaw yéemu boobu moo ngi signifié mooy yow yàlla defal la xéewal au lieu que nga e, yàlla moo ma ko jox nga naan lii man la wala sama liggéeyu ndey la wa ma bikum min ni'matin fa min allah hmm. loo am ci xéewal rek moo ngi jóge ci yàlla parce que di nga gis nit nga ne lii samay liggéeyu ndey la nga gis ndey ju ju gën a sonn sa ndey te yow yow doomam amul li nga am nga ne sama barke baay la nga gis baay bu gën a ëpp barke sa baay te doomam amul yow li nga am nga ne sama njàng la nga gis ku la gën a jàng amul li nga am nga ne sama taar la nga gis ku la gën a rafet te amul li nga am loolu lu muy signifié mooy da ngaa war a delloo lépp xam ni xéewal du jóge ci kudul borom bi tabaraka wa taala wa ma bikum min ni'matin fa min allah loo leen am ci xéewal rek tu ce que vous avez tout ce vous obtenez sachez que ça ne peut que provenir d'Allah subhanahu wa ta'ala ça provenir que d'Allah subhanahu wa kooku mooy ñaareelu feebar bi ñetteelu feebar bi Cheikh Omar nee na mooy mer ak rëy mer la colère hein ak rëy waaw ñaari feebar yooyu Cheikh Omar nee na ñaari feebar yooyu toujours ñooy ànd ki rëy toujours day mer ki mer toujours nit ku rëy la kii nit ku rëy la Cheikh Omar a ko wax de Cheikh Omar nee na ñeenteelu feebar bi nee na mooy soxor ak iñaan ak di noonoo yal nañu ci yàlla musal Cheikh Omar nee na juróomeelu feebar bi mooy xubbu sanaa'i iwal jaahi mooy bëgg ak tagg ak daraja bëgg daraja <laughs> juróom feebar bi Cheikh Omar nee na mooy at taswiif wa tuulu lamali nee na mooy yow lépp sa adduna yépp futur rek ngay conjuguer sa lépp futur la sama projet yi lii du ma ko defee nangam nangam bëgg naa li lii laa bëgg a def lii nangam foo toll yow yaa ngi ci ay projets yoo xamante ni du jeex mukk yow doo wax mukk présent doo faale faale woo passé yow futur rek mooy sa mooy sa mbir Cheikh Omar nee na juróom be juróom-ñaareelu feebar bi nee na mooy di mer ci euh, suxtu ala ala al aqdaar al mu ne yàlla teg la lu naqari nga cay mer am na ñoo xamante ni fi mu ne nii julleetuñu pourquoi parce que dañoo def bak amuñu ko am ñoo xamante ni yàlla dafa seen benn doom ñu daal ne ñoom dootuñ julli parce que yàlla waaw kay lu tax muy seetaan doomam ji di dee di daanu ci oto bi di dee lu doom ji di dee ci euh, accident moom ko du yàlla nekkoon loolu du am Cheikh nee na juróom feebar yi képp ku mu nekk ci yow du yóbboo nga pare dawal nga yàlla bula dimbali orienté jox la ay détergent am jox la ay ay ay fóotukaayam jox la ay njàmpeem jox la ay saaboom dugal la ci duusam fóot la raxasal la sa xol ba mu set wicc ba mën laa delloo sa borom nga nga mën a wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga mën a wax wattaqu yawman turjauna fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ma ngoog gis nga lii pour nga am ko il faut nga dem seeti nitu yàlla ku yàlla gërëm ku xam les réalités de l'âme les contours de l'âme les conséquences de la dangerosité de l'âme nga xam ko maîtriser ko xam les profondeurs de l'âme xam les tenants et les aboutissants de l'âme pour pouvoir nag maintenant purifier wu ko laapal ko ba mu set wicc ba bakken bi mujj daal ne nir nooy nepp nangul borom borom daal di jébbalu ci yàlla ruu gi daal di mën a génn daal di dellu ci boromam su ko defee xam-xam yi dellu si yëg-yëg yi dellu si nga branché wu ci yàlla branchement bu wér am connexion ci yàlla te dootul dagg nga am connexion ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam te dootul dagg yàlla nañ ko yàlla defal su leen neexee euh, mbokk yi ñu leeral juróom-ñaar yi Cheikh wax waaw mbir la moo xamante ni man ça me tient à parce que c'est les cœurs qui sont malades toujours ma wax ko te Cheikh Omar wax nañu fee feebar yii billaahi xam ngeen ne moo nekk ci ñun billaahi xam nañ ni moo nekk ci ñun te duñ ko saafarawul lu ñu mënti def ci àdduna tamit dara du ca baax lu ñu mënti am ci or ak jamaa ak émeraude ak ak ak ay élection du tax ñu baax lu ñu mënti am ci àdduna ci ay organisation ak ay armée du tax ñu am jàmm àdduna bi duñ am jàmm muk mukk mukk fekk xol yi amul jàmm xol yi du am jàmm mukk mukk fekk laabaluñ ko duñ ko laabal mukk fekk conscient wuñu ci feebar yi nekk ci biir xol bi Euh, duñu conscient mukk lu dul dañoo déglu ñi nga xamante ne sama borom ginnaaw moom leen jàngalee nan la ñuy laabee nan la ñuy jàppee nan la ñuy sangoo janaaba daf leen a xamal tamit nan la ñuy fóotee ba euh, les défauts de l'intérieur les défauts de l'intérieur son plus difficiles à éradiquer que ceux visibles par les par les yeux de la tête que yokkute moom borom bi tabaraka wa taala moo ngi koy wàccee ci xol boobu nga xam alxaaji Omar al Fuuti radiyallahu taala anhu jàngal ñu te suñu càkkuteef dàqal ñu lu ñuy ragal ci zahir ak ci baatin bi jaahi sayidina wa nabina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci barke ñu baax ñëpp maam Cheikh Omar radiallahu anhu nee na feebar bu njëkk bi mooy ngistal ngistal nag Cheikh Omar moo ko firi nee na mooy yitte bi ngay bi eh, bànneex bi ngay am ci ak yitte bi ngay def ngir nit ñi di gis say jëf nit ñi di gis say jëf di gis sa noppi di gis say jàng parce que léeg nga gis koo xamante ni jëfam day bëgg nit ñi gis ko bàyyi yàlla sax da ngay gis kuy noppi fekk noppiwul day nappe rek noppik nappe la fekk xol ba dara baaxu ca yàlla nañu ci yàlla musal wala ngay jàng jàng alquran wala jàng xaw ma lu mu mënti doon di ko wax ca kaw te fekk yow bi nga koy wax nit ñi rek nga bëgguñu dégg la waaye bëggoo yàlla dégg la yàlla nañu ci yàlla musal waaw Cheikh Omar nee na te lii ngistal képp ku mu nekk ci yow yàlla day rocci bànneexu jaamu yàlla ci sa xol bànneexu jaamu yàlla ci sa xol da koy rocci dañ defal li ñuy wax sëlbu salbu waaw dañ lay dañuy extraire ci sa xol hmm, le plaisir d'adorer d'adorer d'adorer Allah waaw Cheikh Omar na amul amul amul fitna ak mbugal ak coono bu gën a metti ci nitu yàlla ci nga di nga nga tolloon ba yëg yàlla di am ay xam-xam ci yàlla am ubbeeku ci yàlla nga dem ba sa yëg-yëg ci yàlla sa bànneexu euh, yàlla ñu rocc ko ba mu set Cheikh Omar nee na euh, halku ñu bëri dañoo yaakaar ni halku mooy nga accidenté dee wala nga torox wala nga ñàkkoon nga am wala yooyu daal Cheikh Omar na halku mooy yow ngay julli te yow julli mécanique ngay julli te pourtant avant ngay tooñ nitu yàlla avant ngay xas waliyu daan nga julli julli gu rafet julli gu yiw julli gu baax nga dem ba nga xamante ni nag yow sooy julli sooy julli dootoo yëg naada dootoo yëg dara da julli comme machine mooy sëgg siggi sëgg siggi sa biir xol dara nekku ci yëgoo dara Cheikh Omar nee na mooy du mooy dóor yi gën a rëy ñu koy dóor euh, waaju tooñ nitu yàlla yàlla ñu ci yàlla musal Cheikh Omar nee na léegi nag loolu li koy saafara mu ne heure bu sa xol amee feebar bu mel nii nee na da ngay jël ndoxum <clears throat> ndoxum ndoxum ixlaas mu ne moom nga koy saafaraa moom ngay raxasee sa xol ba mu set wicc ixlaas mooy lan inna solaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil alamin ah laa sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin mooy lan sa julli yàllaa moom sa koor yàllaa moom sa azaka yàllaa moom sa eh, sa sa rendi yàlla moom sa dem màkka yàlla moom lépp looy def yërmande yàlla kase nga ci sàkku du leneen ngërmande yàlla kase nga ci sàkku jëmmi yàlla ji tax rek rek rek mooy tax nga def ko wutoo ci àdduna wutoo ci nit ñi gis la wutoo ci dara Cheikh Omar nee na ndoxum ixlaas moom ngay fóotee sa xol bu dee yow sentir nga ni ngistal moo nekk ci yow soo ko mënta fóot tamit nga dem ci nitu yàlla waluyu yàlla wala sëriñ bu mat sëriñ nga dem ci moom mu fóot sa xol ba mu set ci ndoxum ixlaas Cheikh Omar nee na ñaareel bi mooy nga nit ki su demee ba di askanele xéewal yi mu am ak teraanga yi mu am mu koy askanele boppam comme li ñuy wax ci ñun suñu liggéey ndey laak sunu barke baay laak saafara si ma sangoo laak cër bi ma yor la ma sikkar doo ko xamoon nag fa ma demoon nag lu nekk nga léegi fàtte nga al munim yow yaa ngi ci an neema yow fàtte nga xéewal bi fàtte nga ki indi xéewal bi waaye yow xéewal bi léegi moom ngay jaamu jaamootoo yàlla nangulut nanga nangoolu nangoo nangootuloo nangulootoo nangulatoo borom borom xéewal gi kila la xéewal déedéet nangulatoo ko yow ki li nga nangul léegi mooy xéewal gi gis nga mooy li ma junjoon sànq ci début waxtaan wi ne bokkaale yàlla piir du yii ustaas yi di wax déedéet bokkaale yàlla mooy lépp loo xamante ni soo su su wootee su wootee nga topp ko bàyyi yàlla gis nga sa xéewal rek doo ko amee xéewal waaw dootam bànneexu jaamu yàlla ci lu wér Cheikh Omar wax na ko de ci lu wér kuy ngistal dootoo am bànneexu jaamu yàlla dootoo yëg dara dooy jaamu yàlla waaw moo tax sincérité mooy lépp yàlla nañu ci yàlla yàlla nañu ci yàlla defal ixlaas mooy sincérité mooy lépp dégg nga ñaareel bi soo demee ba wax ni lii maa ko moom wala sama liggéeyu ndey la wala wala xaw ma wax daal di di askanale sa teraange ji nga keneen ku yàlla soo ko defee rek soo ko defee rek yaa ngi ci musiba mu rëya rëya rëya rëy rëy nee na su boobaa ñetti mbir dina la daal ñetti mbir Cheikh Omar nee na soo bëggee xam ndax <laughs> lii moo ngi ci yow xoolal ñetti mbir yi dem ba dootoo ragal yàlla parce que yow dootoo gëm ku sa sa bopp sa jëf say capacité nga gëm mais gëmatoo xéewalu yàlla kooku c'est très dangereux da ngay mujj weddi yàlla yéefar ngay mujj doon yàlla ñu ci yàlla musal ñu bëri ci loolu lañ dugg dañoo dem ba jàpp ni ils ont une une main en après ngay mujj di wax di di jël xéewal yi di ko askanele keneen ku dul allahu jalla wa ara te dootoo bëgg lu dul ñu lay tagg dootoo bëgg lu ñu lay tagg mënatoo dégg ku la critiquer mënatoo dégg kula la yedd mënatoo dégg ku wax dëgg e loolu c'est très très très très très dangereux Cheikh mar nee na loolu li koy saafara mu ne nga daal di gaaw daal di xam ni wa ma bikum min ni'matin fa min allah loo leen am ci xéewal ci yàlla lu jóge te yàlla kat nee na wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha soo leen doon jéem a calculer xéewalu yàlla yi kenn mënu koo calculer imagine rek nga bëgg a nattu yow bëgga nga juddoo ba tey 80 nga juddu wala 82 wala 84 wala 86 wala 79 wala 77 imagineel ba nga juddoo ba tey Cheikh Tidiane nee na nit ku nekk bis bu nekk di nga noyyi 12000 fois 12000 fois inspiration 12000 expiration imagineel imagineel yow nga juddu 1987 90 xoolal at yi nga am nga am 30 ans par exemple. 30 ans nga multiplier ko par 365 365 jours multiplier ko par 12 multiplier ko par 30 multiplier ko par 24000 ah calculer ko nga xool ñaata milliards de noyyi nga noyyi te benn noyyi bu ci nekk benn noyyi bu ci nekk kenn xamul valeur ndax tubaab yii hôpitaux yii maa ngi lay xamal ni la oxygène dañ la koy jaay. oxygène dañ koy jaay soo fayul dañ lay débranché <laughs> yàlla ñu yàlla suturaal noo <laughs> tax da ngay delloo lépp xéewal yi xéewal yépp danga nga koy delloo borom bi tabaraka wa taala tout lépp loo am ci xéewal nga ne lii yàlla la mën nga sant nag fa xéewal ga ndax yonent bi moo ko digle ku santul nit ñi doo sant yàlla waaye nag bu mu tee nga bàyyi di delloo yàlla njukkal xam nga loolu léeg nit ñi dañ ciy juum xam nga am na ñoo xamante ne fi ne nii loolu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci lañ bëgg a dëgg ne dootum sant yàlla waaye kii xéewal gi jaar ci ñoom rek la ñuy sant ak loolu ak dangereux ak dangereux borom kër soo lekkee ceebam ba noppi soo demee ci soxna si ne ko jaraw lakk demal ca moom nga ne ko jëf yàlla bu fi ñàkkati ah su ko su xamee ni yow soxna si rek ngay wax jërëjëf bis di nga ñëw mun la demal demal ca àll ba waaw xéewal yi nag ngi ci loxoy borom bi tabaraka wa taala xéewal yépp moo ngi ci loxoy borom bi tabaraka wa taala ku mu arrêté sa xéewal nga xalku nga yàqu même budul dara sax su la reyee rek jàngi jeex ok kooku mooy saafara ba Cheikh Omar neen noonu rek ngay def dellu ci yàlla xam ni lépp li nga yor ci xéewal yàlla la jox Cheikh Omar nee na ñetteelu feebar bi neen mooy alxadabu wal kibru Cheikh Omar nee na mer lu bon la mer alxadabu yonent bi sallallahu alayhi benn waay ñëw na ne damaa bëgg nga conseil ma yow Seydina Muhammad yonent bi ne ko demal te mer laa taghdab demal mer Cheikh Omar ñu ne waa lu tax mer dangereux mu ne al al ghadabu yamxaqu nuur al aqli waaw al al ghadabu nuur al aqli Cheikh Omar nee na radiyallahu anhu dégg nga nee na mer day yóbbu xel day day day day day day day day day day day nal waa kay wolof nal lay wax nal mooy ngay bës muy tuuru di sotteeku nee na day nal xel neena na merkat du am xel merkat du am xel te dëgg la gis nga fi ne ni doo meree réaction yi ngay def ci ngay xam ni moment bi ngay réagir sa xel dem na parce que sa xel du dellusee da ngay réccu moo tax soo meree bul wax soo meree bul def soo meree bul wax soo meree bul def soo meree teeyal dalal defal ndànk defal ndànk teeyal defal ndànk teeyal defal ndànk ba yëfi dal tuuti su dalee nag aha nga soog a xool nooy réagir te soo bala nga réagir seetal nit ku baax ku xolam rafet ku xalaatam rafet nga wax ak moom waaw mais bu dee da nga mer rek commencé wax Cheikh Omar nee na bêtise rek ngay wax bêtise rek ngay def te su boobaa après réccu moo ci topp te réccu léeg-léeg c'est trop gis nga seen maam Cheikh Alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu soo ñëwaan foofu di xët-xët yi wala ngay jooy wala ngay wax danaan la toogal fee waaw danaan la toogal foofu rek ngay bëgg wax mun la xaaral tuuti recevoir nit ñi di ñaan di wax di ki di ñaan di wax di kii ba ci yàgg benn kii lu sedd ñëw fa mu ne ah, jox leen ko mu lekk mu naan mu naan ñu toog ba càgg xéewal gu gu baax am fi waaw ginaar yu baax mu ne ind woo leen ko mu ñëw ñu jox ko mu lekk ba suur jox ko mu naan boisson wala soow waxtaan wu neex am fa nit ku baax ku bari xorom ñëw fa ndeysaan dégg nga waxtaan daal di kaf ñëpp ree gis nga mamalaa ji daraan toog ba càgg rek daal ne la waaw ana diw ñu ne ah mun la kaay ñëwal nga ñëw mun lan la lu la indi woon yow sànq bi nga fiy ñëw yaa ngi xët-xëti rek di coow rek ah man dara ah man dañ maa tooñoon rek waaye génn naa ci bàyyi naa leen baal leen quoi giif naa gis nga te ci saa si su ko déglu woon mu wax musiba yoo xamante ni wala mu nettali ay tooñ yuñ ko tooñ yoo xamante ni góor gi il est obligé mu woote gém koo lijjanti waaye ci dal ci la ko lijjante yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ne gis nga loolu xale yu góor yëpp war nañ koo xam bu baax xale yu góor yi <laughs> war nañ koo xam bu baax ak ñu xale yu góor ñëpp góor ak jigéen gis nga même am na ay ay ay ay ay sensation ak ay pulsion ak ak ay yëg-yëg yoo xamante ni soo ko amee parce que da ngay seetaan télé bi wala ngay xalaat loolu kenn mënu ko tënk wala wala wala ay situation daal yoo xamante ni dafay yee ay pulsion ci sa biir yaram nee na su fekkee nga tëdd jugal su fekkee nga toog jugal dox sooy jug di bu fekkee nga tëdd nga jóg soo jugee day giif day wàcc bu dee ay yëg-yëg la ay caay-caay la day wàcc bu dee da ngaa dox mu wàcc soo bu dee bu dee wax naa ko dem mbokk mi su lool du amee dawal nga dugg ci YouTube déglu ay waxtaanu yàlla déglul ay zikkar jëlal sa photo kilifa ki nga bëgg sopp ko gëm ko yaakaar ko ci yàlla xool ko soo ko xoolee bu dee mat na li mu doon soo koy xool rek sa xel di dellu ci yàlla ba nga fàtte bànneex yi nga xamante ni moo ngi commencé dugg sa bopp bi bëgg laa perturber bëgg laa yàqal dégg nga bu dee gis nga ni affaire baa ngay euh, euh, euh, perdurer di gën a gudd nga ay fan dégg nga gën a gën a wattu télévision wattu mbedd wattu di xool soxna yi wattu di xool xale yu góor yi wattu yenn film yi wattu sax même ay faux Facebook yi nga toog benn fan ñaari fan doo ko laal def ndànk ba yooyu yëpp dal ci sa yaram parce que ay c'est des choses yu xamante ni ay ay kii ay hormone kase la waaw ah, testostérone bi rek moo nekk ci yow bari ci yow fees dell doo defee ndànk topp jàngale yonent bi da ngay mujj nga nekk nit daal di dal soo sagganee nag daal ne ah garaawul daal di commencé nag di Euh, naan mais non c'est pas grave topp sa bopp da ngay mujj ay doyadi ay caaxaan ay ñàkk fayda ay bàkkaar kese ngay mujjee yàlla nañ ci yàlla musal bi jaahi sayyidina wa nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa mbokk yi Cheikh Omar nee na radiallahu anhu kuy mer sa xel day dem kon doo mere bul wax bul def bul yëngatu teeyal noppil ba sa ba nga dal soog a wax loolu moo gën ba nga dal soog a jëf loolu moo dël loolu moo gën ba nga waxtaan ak boroom xel mu rafet soog a def waaye su dul loolu di nga def loo xamante ni su ëllëgee da koy rëccu te rëccu wees na bu yàgg yàgg yàgg yàlla nañ ci yàlla musal bi jaahi sayyidina wa nabina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Umar nee na na ngeen xam ne merde benn géej la goo xamante ni géej la gu am ay euh, ay ay ay ay ay ay ay ay ay pax géej gu am ay pax la géej gu ñàkk bankaas la bànqaas comme géej yëpp waaye géej gu ñàkk sauvetage la ndax amul benn bateau bu fa mën a wàcc amul benn bateau bu mën a wàcc ci géej googu pour sauver la amul benn benn fiikat benn benn mool bu mën a dugg ci géej googu bu fekk la fa ndax géej googu dafa am courant dafa am ay ay ay ay ay ay ay ay xeer ci biir dafa am ay jën yu yu soxor yuy mataate dafa am ay jësit loo gis lu lu lu lu rek mu ngi ci géej googu ñu ne ko géej googu mooy lan mu ne mooy mer mer baaxul mer baaxul mer baaxul te yéen xam ngeen ni ñun dañuy mer rek Sénégal dañuy mer rek rajo bi mer télévision bi mer émission yi mer euh, kii débat politique yi mer même débat diine yi xoolal débat diine yi mujj ci tabaski bi xoolal débat diine xoolal débat diine yi bi doon def ci kii bi ci monument de la renaissance bi xoolal débat diine yi xool débat diine yi doon def ci korité dañuy mer dañuy mer ay kilifa ay sëriñ ay ustaas dañuy mer ba futtu bay saaga mer te yonent bi ne woon laa tax da bul mer yow ngay imaam di kilifa am ay taalibe am ay njaboot am ay mbokk di ku ñuy déglu nga dem bay dagg saaga ci en direct ñu ngi koy jël di ko relayer saaga ndey saa xoolal saaga ndey mu mel léegi ci réew mi ñëppay dagg saaga <laughs> saaga saaga ndey amatul benn valeur te bu njëkk ku ñu saaga nday fetal lay jëli ji léegi saaga ndey mooy mooy mooy mooy favori bu sénégalais yi saaga ndey groupe yi saaga ndey copains yi saaga ndey ci match yi saaga ndey stade yi saaga ndey cinéma yi saaga ndey même conférence yu diine yi saaga ndey pourquoi parce que les gens sont violents dañoo soxor Sénégal xool leen rey ya fa am musu faa am rey nit daggate ko waaw cent franc ngay butti nit mu dee cent franc ñaar fukki dërëm cent franc nga butti nit mu dee war kaasu ataaya lu tax xel nga rey ci nit mais lii sëñ bi lu tax xel loo ma ataaya marendi la dangaa xees damaa ñuul maray rey la ca bokkuñu parti politique maray rey la ca bokkuñu tarixa ma rey la ca sama sëriñ moo gën a rafet sa sëriñ maray rey la ca les gens sont méchants les gens sont violents il faut que ñu delluwaat ginnaaw di jàngaat dal di jàngaat euh, euh, apaisement di jàngaat quiétude wala di ansala anzala sakinata fi qulubil muminina li yazdaadu imaanan maa imaanihim eh, di jàng dal waaw bañ a vif bañ a agressif waaw yonent na jullit day day day nooy nooy bokkut ak de waaw nga kontaan mooy di mer seet nañu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla jubal yàlla ñu yàlla set barke alquranul karim mer baaxul. Mm-hmm. day dindi xel. day day day tas mbooloo. day perturbe ñu xeeb kilifa. dal dafa. te léeg nit ñi noonu nga leen di yare ci léeg-léeg ñi dañ leen di dugal sax. gis nañ ni nit ñi dañoo violent. nit ñi dañoo violent. tontu yu ñàkk teggin. tontu yu ñàkk teggin. wax yu ñàkk teggin. dagg saaga. il vient il vive euh, il vient d'une autre planète. tellement ils sont méchants discours yu tàng jër même ba ci diine ji discours yu soxor lañu yor ils sont violents waaw nangu ñoo xajoo kenn soo bokkul ak ñoom euh, mouvement ils sont violents avec toi soo bokkut ak ñoom tariqa ils sont violents avec toi soo bokkut ak ñoom gis-gis ils sont violents avec toi soo bokk ak ñoom euh, parti politique ils sont violents avec toi ba kañ léegi nag nit ñi Euh, xale yi dama leen wax naan def attention soo leen toppee nit ñi dana leen yàq seen i jikko parce que da dem ba mujj gi da nga man du ma violent wul dañ may massacrer gis nga ça c'est le piège du seytaan ndox fa mu daan ta soo demee fekk fay tepp am na ñoo xamante ni àdduna du yàgg mukk xam nga lan la ñuy wax xam nga lan la ñuy wax xam nga lan la ñuy wax dañ ne le le bois a beau rester dans l'eau mais il ne deviendra jamais caïman bant mën naa def téeméeri junni at ci biir ndox mais du tax mu nekk jësit am na ñoo xamante ni àdduna du yàgg mukk bon bon mënuñu ko suñ ko bëggoon sax duñ ko mën def faut faire attention dal def ndànk bu leen topp nit ñi dans les RER e dans les métros dans les transports dans les bus il faut def ndànk tey partout mbedd yi doy laajte suñ lay laaj defal ndànk te et xam nga li tax def ndànk fi mu ne nii euh, euh, am solo Mouhamed xam nga tax parce que am lu ñu ci bëri conscientuñu dafa bëri ay dof yoo xamante ni dañuy sol yére yu rafet yu set sol costume yu baax te fekk c'est des fous mën naa am kooku ngay waxal noonu di jéem a moom ci biir train bi wala ci bus bi wala ci yoon wi wala ci garage bi dafa solu ba correct mais rendez-vous psychiatrique la jëm <laughs> moo ngeeg ay garabam ci biir poosam nga wax ak moom mu butti la rey la te moom du du la reyee du tëdd ndax daf feebar <laughs> du wérul xel mi neexul am na ci ñoo xamante ni bul wax ak ñoom dañoo màndi am na ñoo xamante ni dañuy tux dañuy tux yàmbaa gu set màndi ba ni tut nga wax ak ñoom ñu gaañ la te yow sa dundu dafa am valeur parce que dafa am ay projet am ay xalaat yaa ngi bëgg jaamu yàlla bëgg a jéggul yàlla bëgg tuubal yàlla say bàkkaar moom mii yoonam nekkul ci loolu moom li mu bëgg sax mooy dee noppalu parce que dundam amul valeur moom li mu bëgg mooy ñu dem tëj ko ca kaso ba ndax sedd banque yu bëgg ci mbedd mi daf lay bëgg a jam ñu tëj ko ca kaso ba mu noppalu moom kaso lay noppaloo bi du nekkee ci biti il souffre mais kooku Mouhamed doo bëggee jëflanteeg moom fooy jëm moo tax il faut faire doucement def ndànk teey muslu prudent il faut être prudent les gens sont méchants Voyez comment ils, ils, détruisent la vie des gens sur Facebook, comment ils détruisent la vie des, des, des nobles sur YouTube, comment ils détruisent la vie d'honnêtes sur Internet. Comment ils dé, dé, la vie de, de, de, de nobles parents. Hmm? xoolal ni ñu koy détruire ci benn article bu ndaw boo bind ci benn vidéo bu ndaw bu une minute boo def nga détruire dundu jàmbur magum jëmm di dox doxam nga nga bind ne góor jigéen la magum jëmm di dox doxam nga bind ko ne dañ ko fet bekk ak jigéen fekk dara du ci dëgg yàq àddunaam jigéen waxanteeg yow nga enregistré ko publier ko ci internet góor wax ak yow nga enregistré ko publier ko ci internet ànd ak nit muy neex mu naqari la ngeen doon séq yëpp nga publier ko ci internet waaw ah, mais sëñ bi euh, lii musiba la te lii li koy indi yëpp mooy violence les gens son violents les hommes sont violent te violence baaxul yàlla nañ ci yàlla musal bi jaahi annabi wa alihi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñeenteel bi euh, Cheikh Omar wax radiallahu anhu nee na mooy iñaan ak soxor dégg nga euh, ak noono Cheikh Omar nee na yii tamit ku mu nekk sa biir xol du yoboo nga dem saafara ji ko ndax doo àgg ci yàlla mukk doo am ngërëmul yàlla mukk wallahi du àgg ci yàlla ñu ne ko waa lii lan moo koy saafara Cheikh Omar nee na mu ne mooy almahabba mu ne jéemal nga jàng bëgg yàlla soo bëggee yàlla soo bëggee yàlla dégg nga Cheikh Omar ni wax de nee na almahabba nee na bëgg yàlla soo bëggee yàlla nit soo ko bëggee doo def lu ko naqari déggal waay yàlla soo ko bëggee dootoo def lu ko naqari mu ne bëggal rasulullahi yonent bi doo ko bëggee di nga topp sunnaam dootoo def lu naqari rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nit yàlla yi soo leen bëggee dootoo def lu lu leen naqari su boobaa sa àdduna baax sa na baax nga foot sa xol xam ni nit mënoo ko xañ ko yàlla jox mënoo ko jox ko yàlla joxul mënoo foqarti ci moom lu yàlla teg ci loxoom mënoo ko parce que kenn ku ci nekk ba nga ñëw ci àdduna tàgguwoo sa moroom ba nga ñëw ci àdduna sa wërsëg nga indaale sa xéewal nga nga indaale sa tur nga indaale sa teraanga nga nga indaale kon yow yaa ciy ñaaw kase yaa ciy ñaaw yaa ciy yàqoo jarul ngay dem fenn di yóbbu turam pour liggéey ko jarul ngay dem fenn pour di di di wër pour yàqal ko jarul ngay dem fenn ci internet di di yàq deram mënoo ci dara mënoo dara nit mënoo jël lu ko yàlla jox waaw nit soo soo xësee ba xam loolu jeex na lu la mën mënti def ci kaw suuf tamit mu dal la wala mu jàpp la xamal ne dafa neex yàlla waa yàlla subhanahu wa taala lu ko neexul mënul am yàlla subhanahu wa taala lu ko neexul ci jaam yi mënul am loolu duñ ko xamee rek ñun ñëpp dañuy mujj daal noppalu lii xam-xam la bu simple lii jarul baatin sa lii jarul jarul baatin jarul jarul àgg ci yàlla <laughs> jarul yenn xam-xam yu ak yi keneen am yëpp fa min allah te mënoo ko natt mënoo ko peese yow ki nga taxu fii di iñaane am nañ ay milliar nit yu am lu ko ëpp ak yu ko ëpp ay milliards Cheikh Tidiane lan la wax yàlla ci biir sëy fiyu falaka alhamdu ala makarimika allati la tuxsa wa niamika allati la tustaqsa fi lleyli ida adbar wa subxi ida asfar wa fi lbarri walbixaari walguduwi walaasaali walcashiyi walibkaari wazahirati walasxaari wa fi kulli jusin min ajzai lleyli wannahaar lii la lii la lii la Cheikh Tidiane wax yàlla ne ko yow say xéewal kuy jéem a jóg ne day jéem a lijjanti xéewal li nga xéewale say jaam moo nara a xalku moo nar yàqu waaw coonoom di coono bu rëy dikkal na ko xam nga lan moo ko war wax alhamdulilahi rabbil alamin te sax ca te dëgg ci moom mu wax ko ci làmmiñam wax ko ci xolam wax ko ci xolam xelam wax ko ci ay cëram ba noppi di ko dundee loolu moo war jaam euh, loolu noonu mooy indi xéewal mooy indi sutura mooy indi teraanga ci àdduna ak ci àllaaxira waaye maa ngi lay waatal ci yàlla subhaanahu wa taala mi ñu boole bind ñun ñëpp di suñu borom yilif ñu di ñu di xéewalal di ñu rey di ñu dekkal su ëllëgee ñu war a rendre compte ci kanam moom yàlla subhanahu wa taala maa ngi lay waatal ci moom ne kenn mënta jox nit lu yokk muy wàññeeku yow yàlla waaye amul dara looy wàññi yow yàlla mu yokk amul dara looy yokk yow yàlla muy wàññeeku waaye amul dara yow yàlla looy wàññi muy yokk mënul nekk mënul nekk mënul nekk amul dara looy yokk mu wàññee ko yow yàlla laysa fiha ahadun wala ghayruka lam yakun ilahun siwaak waaw Cheikh Tidiane nee na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam eh, nee na yàlla subhanahu wa taala Cheikh Tidiane nee na yàlla subhanahu wa taala fala yanta fala yantaqisu ma aradta an yazdaada wala yazdaadu ma aradta an yantaqis pourquoi parce que la ahada shahidaka xiina fatarta al xalqa kenn fekkewul bi ngay bind jaam yi kenn fekkewul bi ngay séddale wërsëgi yow yàlla kenn fekkee ko laa ahada shahidaka xiina fatarta al xalqa wala nidda wala didda xadaraka xiina barata nufus wala nidda amul benn ndend wala didda keneen ku dul yow xadaraka fekkew ko xiina barata nufus bi ngay bind mindeefi déedéet bi yàlla di créé mindeefi kenn fekkew ko bi yàlla di créé wërsëg gi kenn fekkew ko wala nidda wala didda xadaraka xiina barata nufus xam nga yàlla lu xew Cheikh Tidiane nee na yàlla kallati lal sunu an tafsiri وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك وكيف يوصف كنه صفتك وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي الذي لم يزل ولا يزال أزليا باقيا أبديا سرمديا وحدك في الغيوب وحدك لا شريك لك ليس فيها أحد غيرك ولم يكن إله سواك حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر وتواضعت الملوك لهيبتك وعنت الوجوه بزلة الاستكانة لعزتك وانقاد كل شيء لعزمتك واستسلم كل شيء لقدرتك kii mooy yàlla subhanahu wa taala mooy joxe mooy mooy maye lu ko neex mu def fu mu ko neexee mu defee kum ko neexee mu defee ci bis bi mu ko neexee la koy defee mooy fekk koo xamante ne amul dara baayam amul dara yaayam amul dara mu jox ko joxo joxo jox ba ña daan dimbali baayam daan dimbali yaayam ñooñu moom muy muy mujj di leen dimbali mooy jël nit def ko ab planton def ko ku doyadi ku amul dara mu jël ko moom yàlla subhanahu wa taala yëkkati ko ba def ko président ba ñanga nga xamante ni ñoom la doon daggal seeni seeni garab ñooñu dañuy mujj ay doomam nekk ay seeni ay mbindaanam yàlla muy jël koo xame askan woo xamante ni amuñu xam-xam amuñu xel mënuñoo jàng kenn xamu leen ci xam-xam mu génn ca kenn jox ko xam-xam jox ko cër boo xamante ni ñëpp dañ naan kii seen askan kenn xamewu leen lii ñoom duñu ay jàngkat amuñu xel waaye tey ji yàlla génn na ci am kanko kanfoori go go moo xamante ni moom fu mu toll ku soxla dara ci yàlla ku soxla dara ci àdduna ku soxla dara ci xam-xam il faut nga dem seeti ko loolu borom bi tabaraka wa taala moo koy def wa ma bikum min nicmatin fa min allah wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha lépp loo leen gis ci ay xéewal na ngeen xam ni moo ngi jóge ci borom bi tabaraka wa taala waaye xéewalu yàlla yi soo leen ko bëggee jéem a calculer wala ngeen jéem koo natt yéen a ngi dugg ci entreprise boo xamante ni du réussir mukk mënoo leen a réussir ci entreprise boobu Cheikh Umarul Fuuti radiallahu taala anhu nee na juróom juróomee juróom benneelu fee juróom juróomi juróomeelu feebar bi cinquième maladie du cœur Cheikh Omar nee na après ngistal muy premier maladie deuxième maladie muy di yéem say jëf nga jàpp ni loo am yow yaa ko jox sa bopp yàlla joxu la ko ñetteel bi mooy mer ak rëy ñeenteel bi mooy soxor ak iñaan ak ak noono juróomeelu feebar bi Cheikh Omar nee mooy xubbu sanaa wal jaahi mooy koo xamante ni fu mu toll day koy màggal di ko tagg rek te nee na Cheikh Omar nee na man mënumaa comprendre nit ku am jikko ju mel nii ñu ne ko lu tax mu ne nit koo xamante ni yow ndox min la créé mooy man yu yow ci sa bopp yow ci sa bopp yàgg-yàgg dangay ngay mujj dee yàgg-yàgg da lay mujj suul yàgg-yàgg soo bokkul ci gaa yooyu nit yàlla yooyee looy mujj doon looy mujj doon ay sax ñoo lay mujjee neena na Cheikh Omar nee mënumaa comprendre ku am ku ku am ñetti jikko yii ñetti melo yii ba noppi di bëgg ñu lay tagg mu ne suñu lay tagg ci yii rek la la war a tagg mu ne doomu aadama duñ koy tagg nee yii rek la war nangu ñu tagg ko ñett yi mooy ñàkk am ñàkk xam ak ñàkk mën jeex na ndax yii mooy réalité doomu aadama ñàkk mën ñàkk am ñàkk xam ak ñàkk mën kon kan moo am mooy alxaniyu mooy yàlla kan moo xam alalimu mooy yàlla kan mooy moo mën mooy alqadiru mooy yàlla kon kan lañu ñu war a tagg mooy ki nga xamante ni moo xam lépp te di xamal ku ko neex kan lañu ñu war a tagg mooy ki nga xamante ni moo mën lépp te di mënal ku ko neex kan la war a tagg ki nga xamante ni moo am doole te soxlawul ndimbalu benn jaam ndimbalu benn mbindeef kooku lañu ñu war a tagg kooku lañu ñu war a yëkkati kooku lañu ñu war a jox ay cër waaye du koo xamante ni yàgg-yàgg day mujj rek ñu jël ko def ko ci biir suuf si mu njëgënaa suuf suuf nekk ci kawam nekk ci ndeyjooram nekk ci càmmoñam ay wéttalam mooy ay saxam ay wéttalam mooy ay jànqalaar ay wéttalam mooy ay jiit ay wéttalam mooy lëndëm lëndëmaayu bàmmeel yàlla nañu ci yàlla musal waaw kon mbokk yi euh, juróomi juróomi euh, juróomeelu feebar juróomeelu feebaru xol xol yaa ngoog Cheikh Omar nee feebaru xol bi nee na mooy at taswiifu mooy koo xamante ni yow benn temps rek nga xam xamoo passé composé xamoo passé simple xamoo présent xamoo euh, euh, imparfait yow benn temps nga xam mooy futur suba suba suba suba Cheikh mar nee na soo bëgg lii ku mu nekk ci yow di yeboo nga dellu ginnaaw ndax suba moomoo ko suba yàllaa ko moom te soo sàgganee waajaloo ëllëg yowmal xiyaama yow sa suba mooy say projet sa suba mooy say xalaat sa suba mooy say bëgg-bëgg te sa suba yow boole woo ci le suba te le vrai suba mooy bàmmeel allahu akbar le suba mooy ëllëg yowmal xiyaama fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun foofu la su aljana taxawee ni safara taxawee nii groupe aljana waaxu di ànd ak rasulullah dem aljana groupe safara ànd ak iblis dem sawara su boobaa foof foofu mooy dëgg dëgg dëgg suba projet dëgg mooy loolu projet dëgg mooy sa kër gi nga ga nekk ca biir aljana te nga war koo yëkkati tabax ko projet dëgg mooy sa kër ba nekk biir safara nga war koo toj koo gis ci mbindeefu yàlla yi am na kër aljana am na kër sawara bu dee kër safara bi tabax nañ ko ba noppi bu dee kër ba nekk ci aljana terrain nu la yaa ko war a tabax loo ko war a tabaxee ay jëf yu baax te bu dee bu dee ca bu dee ca sawara la yaa ko war a toj noo ko war a tojee jaamu yàlla nangul yàlla topp yàlla dal di tàggalikoo nag ak sa bànneex tàggalikoo ak sa bànneexu bakkan mooy la la mooy la la vraie bataille de notre époque def attention yal nañu yàlla suturaal nangok Cheikh Omar nee na euh, ko gis minute bu jot noy gu jot jour bu jot instant bu jot weer wu jot semaine bu jot at mu jot jamono bu jot moo ngi fàttaliku ëllëg di fàttaliku bàmmeel di fàttaliku ëllëg su waree a dajeeg borom bi tabaraka wa taala kooku du amul talu amul temps wu mooy yàlla amul temps wu fo amul temps wu caaxaan dina dund dundam nag sol ci yére yu rafeti takk ci soxna yu rafeti am ci oto yu rafet yi waaye du loolu du nekk mukk un obstacle dans son cheminement spirituel dans sa relation intime avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa relation intime avec le prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar nee na juróom-ñaareelu feebar bi nee na mooy feebaru di mer ci ndogalu yàlla yu naqari yi te naqari gi kat zahir bi kese la mais baatin bi dara lu naqari amu ca dara lu naqari amu ca parce que yàlla moo xam la laxasu ci biir yàlla xam la laxasu ca biir li yàlla xam li laxasu ci biir moom borom bi tabaraka wa li mu dogal ci yow moo xam moo ko xam moom yàlla il connaît les détails des choses c'est lui seul qui qui détient les détails des choses comme yow déteniroo les détails des choses moom mi nga xamante ni moom borom bi tabaaraka wa taala moo détenir les détails des choses nag nu mu ko doxalee da nga koy gërëm nga sant ko waaye dama ne wax naa ko fii bërki démb ma ne diggante sëriñ ak taalibe lu ci dox lu dul confiance diggante médecin ak malaadam lu fa dox lu dul confiance diggante enseignant ak élève lu fa dox lu dul confiance diggante chirurgien moo gën a graaw sax ak pilote chirurgien pilote ak imam lu fa dox lu dul confiance imaam su lay jullee kenn xamul lu muy wax mën naa wax yàlla na ko kii bandi la kii wayu fu koy dégg chirurgien bi mën na xott sa biir wa wàcc ci wàcc ci ab laam ima bi mais xamoo ko xamoo ko xamoo ndax aay na wala aayul ndax dafa am ay feebar ci bopp bi walla déet xamoo dara xamoo ci dara confiance kese ak espoir nga am ci moom sa sëriñ tamit confiance ak espoir kese la ak espoir kese la yàlla subhaanahu wa taala moom du ay confiance ak ay espoir xam nga lan la da nga koy gëm nga doyloo ko lu mu def nga ne gongo baax na wa kullu ma faala aljalilu fa huwa aljamilu moom la Cheikh fu ci daan wax lépp lu aljalilu def muy yàlla fa huwa loolu jamilun lu baax la lu jaadu la lu yiw la lu correct la kon mbokk yi ñoo ngi santaat borom bi tabaraka wa taala di leen wax ne leen ah, euh, soo gisee ma ñëwaat ci tasawuf ñëwaat ci les maladies de de l'âme ñëwaat ci les maladies du cœur ngir kenn ku ci nekk ci ñun seetaat boppam par rapport aux enseignements de Cheikh Oumar Foutiyou kenn ku ci nekk ci ñun xoolaat boppam par rapport euh, euh, à, à notre à notre personne à nos valeurs nos vertus nos défauts nos tares nos manquements dama leen bëgg a xamal ne leen tasawuf kenn du ko génne ci l'islam tasawuf c'est une partie intégrante de l'islam c'est le cœur et l'esprit même de la religion musulmane donc jéem koo euh, attaqué jéem koo song jéem koo xas jéem koo dénigré loolu c'est une erreur monumentale boo xamante ni maa ngi leen di waatal ci yàlla mi ñu bokk sàkk ñun ñëpp sunu sàgganee ba rey xam-xamu tasawuf ba rey sofiyanke yi ci biir l'islam l'islam dina dee ndax ku amatul ruux dootoo dund ku ñu rey dee nga képp koo xamante ni euh, nit nga ñu futti sa yére da mujj ñu lay wooye leneen lu dul doomu adama te lii nga xamante ni mooy mbubbu lislaam di xolu lislaam di ruuxu lislaam mooy xam-xamu tasawuf comme li ma leen wax sànq nag benn sofiyank macha allahu taala euh, santaat nañ borom bi tabaraka wa taala bu baax dellowaat nañ ko njukkal bu baax gërëmaat nañ ko bu baax baax moom yàlla subhanahu wa taala ci tawfiq bi mu ñu may ñu bokk ak yéen séddoo jotaay yii jotaayu xéewal yi jotaayu teraange yi macha allah euh, fi ci ñun waaye nag ñun ñu koy wooyee ilmu tasawuf wala ilmu tazkiya wala ilmu tarbiya di xam subhanahu wa taala yénkewel na la ko nga ñun ñëpp ñu bokk ko muy sunu ubbeeku ci zahir ak ci baatin ñoo ngi wicc fóotal ñu suñuy ruux ba mu set wicc lépp di xéewal lép di sutura lép di teraanga ci ñun te xam-xam yooyu moo ngi ko jëlee ci sëriñam di cheikh na Ahmed Tijani radiallahu taala anhu nga xamante ni xam-xam la yoo xamante ni képp ku yàlla na a dimbali képp ku yàlla na nar a sutura xéewal yooyu ak lépp la ci yàlla dige muy ay ubbeeku muy ay xéewal muy ay sutura muy ay teraanga bi jaahi wana bi na boo moom la na juróom-ñaari feebar yaa ngoog waaye Cheikh Omar tamit ci saasi ñun ñëpp ñu mën a jariñoo euh, njàngale yooyu ak xam-xam yooyu ak tegtal yooyu mu nekk suñu ubbeeku ak suñu yokkute ci saa sincère euh, xam ni euh, suñu digganteeg suñu borom nga war a jox ah topp riir mi bañ copp werante yi bañ copp coow li euh, ba nga xamante ni incha allahu taala lépp loo xamante ni sàkku nañ ko ci yàlla yàlla subhanahu wa taala euh, mën ñu koo jox ci lu mu gën a gaawee ñu mën koo jëriñoo fii ci àdduna ak ci àllaaxira bi jaahi sayyidina wa nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni sànq maa ngi doon gis sunu ma dugg macha allah kon euh, ku mu neex incha allah mën ngaa jéem a dugg ñu ñu ñu ñu ñu su amee question wala question euh, wala euh, observation wala euh, benn orientation wala xalaat wala gis-gis ci liggéey bi macha allah ñu bokk ko muy ay ay ay échange comme ni ñu ko waxee woon jotaay bi du jotaayu jàngale ñun amuñu xam-xam bu ñuy joxe waaye nag jotaayu échange la jotaayu jotayu jotaayu jotaayu partage la jotaayu séddoo la jotaayu xéewal la jotaay la boo xamante ni yàlla séddana ni. ni ngeen di jàngee ci man tamit wallahi noonu lay jàngee ci yéen ni ngeen may euh, ni ma leen di waxee man it maa ngi ciy déggee sama bopp di ci di ci di ci di ci sax di ci ñaan yàlla yàlla yàlla gën ñu koo euh, gën ñu ko nangul ah, gën ñoo nangul yëngatu yi te te lépp luñ ci wax mu ji ñun ñu jiitu ca ah tabarakallahu loolu mooy affaire bi su ko defee euh, sunu mbokk alxaaji Mar Diop maa ngi ko gis sànq muy jéem a dugg macha allah su la su la neexee Euh, mën nga dugg keneen tamit ku bëgg a dugg euh, mën nga incha allah woote directement ñu déglu la nga poser ces questions bu dee am na tamit ay ay ay ay ay ay ay observation wala ay xalaat wala ay critique sax comme ni ñu koy waxee on est on preneur de tout waaw muy xalaat muy question muy observation muy critique muy proposition de thème dégg nga lépp loo lépp loo leen njort nag doo leen ko waxee rek mu jëriñ mbokk yi leen di suivre di leen déglu ci àdduna bi partout dans le monde rek ngeen xam ni nous sommes preneur ñoo ngi leen di déglu di bokk di ñaan yàlla mu boole ñu ñun ñëpp gërëm te yéwénal suñu mbir bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa suñu mbokk yëpp macha allah ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dugg nañ akay so mbokk maa may wax ne ma tabarakallahu tey daanaka euh, continent yëpp ah, ah, comme d'habitude ñëw nañu waa waa France waa euh, Italie waa Sénégal macha allah ñoom ñëpp euh, waa Angleterre waa waa waa Espagne tabarakallahu waa <laughs> waa waa waa waa waa waa Portugal dégg nga sunu mbokk taalibe yëpp fépp duggee nañ fa tabarakallahu di ànd ak ñun ci jotaay bi ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu jéggal ñu comme ni ñu ko waxee tamit incha allah sudu dul loolu tamit mën mën ngeen euh, bind seeni commentaire ci suuf incha allah ak seeni question ak seeni questionnement su ko defee lépp di yiw lépp di teraanga lépp di xéewal tabaarakalaaw ñoo ngi tamit eh, gis bu baax sunu mbokk yi waa Italie yi suñu mbokk sëñ Mandaw Kase eh, heure bu ñuy dugg rek ñoo ngi ci biir suñu mbokk sëñ Pap Njëgin eh, di doomu suñu baay sëñ Moussa di doom suñu maam Alxaaji Ousmane suñu maam di doom suñu maam Alxaaji Ahmad Baro moom it tabaarakalaaw moo ngi dugg di bind bind yu daw yaram moom la ma mbokk mi wax léegi tabaarakalaaw di ma ko jot li man leen ah ñun ñoo bokk lépp yal na yàlla barkeel yën sayidna muhammadin kullihimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun